Gambia, Abanko Ilwane. Gambia Mwamana, Gambia Kemana, Gambia Musololala, Imaye, Amejigilu Abanko Ilwane, Gambia, Abanko Ilwane. Gambia Mwamana, Gambia Kemana, Gambia lala. Kota Gambia, oh, oh life and walk and pray. That's all believe in unity, freedom and peace day. Let justice guide our actions towards the common good. And join our diverse people to prove man's brotherhood. We pray and from allegiance our of nations to the ground you're ever through. Ah, Banco Iriwandi, Gambia, Banco Iriwandi. Bali mafila bena, jabene nyonde. Banco Iriwandi, Woloko bene. Banco Iriwandi, Yiruwa, Yiruwa. Gambia, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bisimilahi rahmaani rahim dellu siwaat nañ nag ci seeni éti xew-xew yi jamono bu bàkk bi jógee rek xam ngeen ne xew-xew yi jamono tàmbaleti na ñu leen a jaajëfal di jéggalu nag ci li nga xamante ne mënuñ ko woon a indi xam naa du ñàkka ñi ma doon follow ñi ma doon bàyyi xel euh, si suma on page xaboo dañ ne dama tukki woon nekk ma fi woon moo tax xew-xew yi jamono mënut a nekk mënuma woon a nekk ci ñetti mbir looloo tax rek defuma woon xew-xew yi jamono jamono ji nga xamante ne tukki woon nañ wala sori nañ loolu rek moo tax waaye lu ñu waroon a wax du jeex ba pare teg ci tamit topic yu ñu indi woon tey jot nañu ko yëg nañ ko waaye comme li ma wax rek mënuñoo xar suñu bopp ci juróom wala juróom loolu bokk na ci li tax mënuñ wan indi xew-xew yi jamono. ni ñu ko waxee ci bopp xibaar yi ci topic yi noonu lañ koy wéyee di ko xuusal benn par benn ñu ngi bugg a nag ñu fee yàggal lu baree bare parce que nag dañu ko bugg a waxtaanee bu ci nekk rek détails yi boppam la. waaye nag waxoon naa leen ne xew-xew yi jamono dañ koy dagga dañ koy cap everyone dinañ leen ko indil tegal ko ci table bi. Ah, lu tax eh, jot moo ñu ko may loolu moo tax ñu ko defee noonu waaye nag fu mu nekk ni eh, noonu lañ koy defee every week bi mu ñoo sonal bu baax a baax a baax suñu ite yu ñu nekk suñu ite yi boppa mënuñu koo boole ak wax ji boole ko ak géré kër gi boole ko ak leneen ak leneen loo xam ne mun nanguñu koo fisal looloo tax rek dañ leen koy wàññi eh, kon ñu wàññi wax bi dugg ci biir topic bi liñ leen indil tey ci taabul bi mooy lan table iti xew-xewi jamono ñu ne réeroo amut ñàkk waxtaan moo am bu ñu waxtaanee rek solution dina am te xew-xewi jamono might be not even might be it is one of the most critical uh, talk show boo xamante ne dafa jóg jamale ko ko ci Gambien yi nga xamante ne ñu ngi fesal seeni yëf rawatina ñi nga xamante ne dañu bëgg a siiw wala bëgg a fesal seeni mbir dañ leen ko gën a fesal ñoom ñi nga xamante ne ñoo ñoo jox seeni yëf wax naa la ne uh, naka la turaati world wide web la uh, soo si dugalee sa yëf rek dafa benn ki askan bi nga ko jox ñu bëgg a ñëw wax ci. YouTube Facebook dañ am li nga xamante ne mooy private ba da dañ la dee wax sax na la ndax danga bëgg a bi view ko wala ndax danga bëgg a jot sa friends ñu view ko wala waaye boo demee def ko viral wala def ko public askan public bi am nañ ci kaddu am nañ ci ite te war nañ cee war a mun a wax rawatina ñooñu dina wax naan maañ leen seeni business. Eh, mënuñu ko tax na ñoom ñooñu jot seeni business moo tax duñ ko mun a maañ te dafa ni ki Gambie ni gossip news la ñu bëgg a dañ leen koy jox ba mu mot seeg waaye dañ koy teg nag ci gëstu. te ko ci yar te ko ci dégg tegin waaye nag duñu ko la ne duñ leen xarab benn yoon parce que bëgg nañ ñu déggañu nit ki boo koy xarab du la déglu te du la dégga waaye nag defaraat nañ suñu toogaay ñu di tamit parce que nag wax dëgg ne yàlla dañuy toog suñu biir di seetaan suñu ay vidéo di jox suñu bopp li nga xamante ne mooy feedback bu ñu ko askan bi joxul euh, parce que askani Gambia nag gaawuñ ci jox nit feedback lu mu ci mënti doon rek dañuy bëgg nga tarxees waaye nag dañuy toog ci ñi nga xamante ne ñoom ñooñu mool ñi nga xamante ne du seetlu ne Eva wala lu ko naxari wala Eva bu ko mere wala Eva bu ko u seetu ci loolu li mu gis rek la koy tegal ci taabul bi kon nag ñooñu ngi rafetlu li nga xamante ni ñu ngi ñu koy jox. Ah, ci xibaar yi dinañ ci ci ci ci dinañ gis ngeen lu xew Russia ñu ngi ñaan ak fi nga xamante ni mooy Ukraine rek yan na fa yàlla taw ndoxum jàmm fitna xejut ci àdduna rawatina ci ñaari réew yi nga xamante ne dañoo am gànnaay. lum ci munti doon rek bu ñu julee ñun a tànk foo munti nekk rek ni ngi leen ñaanal a taw fa ndoxu jàmm parce que jàmm mooy mun a jàmmal fu ñu nekk ñu ne ñëpp parce que kenn xamut fan la ban heure la parce que lu ñoo wax naan ñu la euh, plante bi kenn xamut ñan ñoo cee mujjee kon rek ñu ñaanal leen li nga xamante ni mooy jàmm fitna euh, yal na ñu ci yàlla sowe te yal na ñu ci yàlla musal mu doon lu métti rawatina xale yi nga xamante ni ñu ngi ewoo dëkk boobu di Ukraine bu loolu wéyee tamit jamono ji xam naa ne coronavirus moom wax dëgg ne yàlla teg nañu ko benn côté euh, parce que am na lu ñu lu ñu ñor lool ci suñu taabul li nga xamante ne mënuñu ko boole ak ay sol ay max ak ay raxasoog ñoomi seen ba tax nag fu mu nekk ni wol li de si jaaxle nañ lool ci xeex bi nga xamante ni mu ngi jëm euh, ci diggante Russia ak Ukraine waaye bu loolu wéyee ba tey dinañ ñëw indi xibaar yi tey dañ koy emma rek si suñu réew parce que duñu jéggaani parce que comme li ma la wax rek ñun ñoo tumaranke ci média waaye nag wax dëgg ne yàlla suñu dëkkandoori tumaranke wuñ si média gambien yi nga xam ne bañ ngeen ñu wax seen yëf wax leen ne alhamdulilah ngeen doon gambien bu doon ab sénégalais leen dootu leen ko doole ku ci mel ki Jalima di ndikoon wax dëgg ne yàlla YouTube bi ku ci nekk ngee xamba kii di xembi waaye nag li mu doon Gambie yéen may na ko sans lu bari ci vidéo boobu mu def te dinañ ko analyse kanam moom Jalima di event tam bi dinañ ko analyse lan na tax Jalima di fail ay audio yi dinaa leen ko playal euh, li nga xamante ne maa ngi woon ci suuf lan na tax Jalima di event tam bi fail euh, dinaa leen ko indil yëpp fan lañ ko teg xadi xadi xadi fay mi nga xamante ne liggéey na ak moom ñàkk a jàpp bi nga xamante ne Hadi Faye jàpp na ci yëpp dinañ leen indil évidence ak leeral yi ah, foog naa ku nekk xam na suma diggante ak Jalimaadi te suma si waxutoon rek damay bias parce que nag mënut a doon suma nit wala ma sopp ko bugg ko mu wàcc yoon te duñu ko ko wax si penc mi lañ ko koy waxee mu dégg ko parce que nag suma diggante Jali fu mu nekk nii romb na ñuy jëlante si suuf parce que nag dafa mel ni ki Jali si boppam duy dégg ah, si ni ma ko gisee Eh, dinañ ci gën a xuus si kanam bu loolu wéyee tamit ki nga xamante ne mooy ci leen jeng mi nga xam ne mooy Chéri Abbas def na ba yëfam ci YouTube bi loolu tax na ñu jël ay yëfam ba tax nag tey teg ko ci table bi moom suñu sista la moom ci leen jeng jot nañ information ne jeexal na ak Abbas lana waral seeni jeexal ndax di audio ci leen yi génn diggante ci leen jeng ak ki nga xamante ne mooy sëriñ bi moo tax digganteem ak Abbas jamono ji sëy nekkatu fa ci li ñu jot ci ay information mënuñoo jot ci leen ci téléphone mënuñoo jot Abba si téléphone waaye gossip news la comme li ñu wax la rek euh, foog naa ne audio bi ñu bari déglu woon nañu ko ñu bari ñi ko mun a dégg ci whatsapp bi jot nañu ko euh, lana ko ga ndax audio baa ko ga ba tax nag digganteem ak Abba euh, yem fa waaye nag ci bi ci leen bi duma ci xuus bu baax parce que dafa dem ba am ñu wax ne ñi ma waxal tey si suuf ñaan nañ ma ne ma naa ko teg ci suuf ma ne ko mukk du am parce que xam nga lu tax dafa nekk loo xam ne dafa génn ba pare bàyyi leen seen i yëf bu génnee ñuy jëlante si suuf naan bàyyi leen bàyyi leen mukk du am xew-xewi jamono dama tukki woon rek moo tax mënuñ ko woon a débat ba pare du ma yàkkamti suma yëf xam ngeen ne li ci bari damay def daal def tey def sama investigation laataa may génn moo tax suma yëf duma ko parparoo léegi-léeg mu dem sax ba débat bi sedd ma yëkkati ko waaye nag ana lu mu mun munti doon rek solution lañ dee jël indi ko moom ci leen jeng moom itamit bokk na tey ci koo xamante ne moo ñu forcé boppam parce que mooy génnee ay vidéo mooy génnee ay wax naa la siiw dafa am price te ko bëgg a jël rek enu ko euh, bu ko defoon private kenn du ci jël si yëfam audio boobu am na nu mu doon demee du ñu ci jot waaye xas na ba génn ci penc mi rek euh, doonaatut yëfam kon nag euh, diggante jëkkër ak jabar la ñu leen a ñaanal ñoom Abass ak ci leen ñi ci war a mun a dox jàmm nañu ci jox daa jàmm ba ci leen mun a delluwaat ci Abass parce que nag dañu am jaboot waaye nag dinañ xuus waxtaan ak ci leen dinaa def solidarité ak ci leen jeng moom mi nga xamante ne du may gaaw a def solidarité nag waaye nag buñ koy analyse dinaa jël solidarité mbuba bi sànga ko ko moom ci leen waaye tamit du tere tam dinañ ko gunge ak ay kaddu yoo xamante ne dina ko war a mun a bàyyi xel lii la na ko ko yóbbee ci kanam dinañ leen ko ebbil paquet yu bari laa amal ci leen ma def suma investigation moo tax mu yàgg ci yeeyu ma ci yàbbiwu ma ci abasi def naa ci moom investigation xam naa fu waajuram mi nekk loolu yëpp def naa ko moo tax ma dee jël suma time du may yàkkamti pour yéen di ngeen foog ne xawma leen waaye nag dina am koo xam ne ku leen jege leen ma xam ko lool wax dëgg neex yàlla bu ñuy jotee rek damay jaar si suuf def sama investigation te duma ci ñulu kenn waaye nag tam duma ci ooturi kenn ñi nga xam ne ñoo maa jox information wax naa la bu laajee dem tëdd kaso yal na yéex yal na bu mu fëgg suma bunti kër dinaa ko dem pour sàmm leen yéen ñi maa jox information bi xanaa nag war ngeen a tëdd nelaw bu loolu wéyee tamit dinañ wax si Alpha Photos foofu la ñu koy njëkkee moom Alpha Ba ñu xamee ko Alpha Photos moom itamit jot nañ coowam ci internet bi génn na def ay vidéo bi tax ki nga xamante ne tamit mooy Ami Jobe yéy na ci yàbbi ci mu am nag lu ñagas lu dox diggante ma moom waaye Ami Jobe du suñu débat Alpha mooy suñu débat te nag Alpha duma ci yàgg lu baree baree moom damay damay xuus rek jaar eh, ñi nga xamante ne dinaa yaatal seen i débat mooy doon ki nga xam ne sax mooy Jalimaadi Kanute moom la ñu gën a yaatal débat yam bi ñi ci des ñii rek dañuy laar raay rek ba kon nag ñi ngeen tarxiiru tuuti rek ñu yaatal li nga xamante ne mooy eh, xew-xewi jamono ak kan Eva kon ci kanam tuuti la muy doon may leen ma rek ma nokki tuuti ma mun a ñëw ndax ma mun a am énergie bi pour wax. ñu njëkkee ko ci alfa comme ni ñu ko waxee la alpha daf dee def vidéo ci xew yi muy li ñoo wax lu angale naan videography ba pare photographe la. moom Alpha moomu nag mu ngi doon liggéey ak brodam ku ñu naan Che photos foog naa ne ñun ñi nga xamante ni wax naa leen ko ah, xam nañ Che man Che moo nekkoon suñu photographe jamono ji ñu doon dem school Alpha xamuñ ko woon wax naa la nag xëy na Alpha sax maa ko mag waaye nag ni mu toll ah, bu ñu àndee rek di nga mun a foog ne moom a mag parce que Alpha ràññeewu ma ko benn yoon ah, am na keneen koo xam ne tam jamono jooju photographe la woon moom tamit Fatou Siaka ñooñu ñëpp nekkoon nañ ñoo xam ne bàyyi woon nañ leen xol ak ki nga xamante ne mooy Njaay ñooñu ñëpp ay photographes lañ nekkoon foofu ci Banjul di ñu doon netaal foog naa suñ ne photographie ak vidéographie ki nga xamante ne mooy Mamoun Deri moo ko ibbi ci su biir Banjul ñu liggéey ci liggéey bi xarañ déggu ñu xarab leen benn yoon ki nga xamante ne tamit mooy Seex Bari def na ci liggéey bu jaar yoon te kenn xarabut leen moom Alpha moomu nag soo gisee li tax ma génn di ci wax parce que nag li ñu wax ci moom ci wàllum lack of unprofessionalism am eh, fa feeñ ci gis naa ko bu yàgga yàgga ma ngi doon waxtaana nit mm, mu ne ma ne seetaanal alpha am ngi am na xew bu moo cover mooy fan naa di mbaalo daabo xew xam naa ne ñëpp ko doon passante parce que nag mbaalo sol na fa ceen bu jaaxal Gambien ni waaye jaaxalul Sénégalais yi parce que nag Gambien la xëj na ñoom ñoo miinutoon yooyu eh, ma duga seetaan ñu seen man link bi si laa duga seetaan waaye mënu ma woon a jeexale xew bi because of alpha manière am ak alpha ni nga xamante ne man a tànk ki nga xamante ne dama ko study waxuma dama dem raay ko ñu jox ma ko de li ma wax dama ko xam photographe vidéographe kenn mënu ma cee wax lu ma mënta xam bu ma ko seetaanee laa kool kooku kooku ne ma yaa seetaan ma ne ko waa axakay waaye mënatuma koo jekkali mu ne ma lu tax ak foo ko teg ma ne ko parce que euh, vidéographe bi mënuma koo digest ma ne ko nag te léegi-léeg soo bañee tooñ da ngay génn si yëfi jàmbur parce que nag mun na cee duga di comment te ni ma gisee woon alpha toogi nam nekkoon na ko agressif si wax Euh, manit ma doon ko agressif ñaar ñu agressif duñ mun a bokk benn langue xew moo tax rek ma wàcc yëfam bés ni ki boobu laa bay di seetaan vidéo alpha euh, parce que nag nit ñi mënuñ laa fay seeni xaalis nga nekk ci biir xew bi di leen gësam gësame di leen cakam-cakamee wala nit ñi la ñëw ulisi sax joxuloo leen benn form of respect loolu is so unprofessional kon nag li ñi nga xamante ne gars yi gis nañ ko ba wax ko indi ko sa pencami alpha bàyyi ci xel duwut na dañ la añaane te nag gambien si bari na ñoo xamante ne bu ñu waxee tuuti rek ñu ne dañ leen añaane kooku ma doon amal conversation bi li ma njëkk a wax mooy Alpha moom naka la ko waxee sax fàtte naa ko parce que mu ngi mel ni sax añaan la xëj na man maa ngi ci vidéographie bi mu jàpp ne xëj na alfa jamono ji mooy bomba Banjul wala mbeddi Banjul yi moo koy moo ko songa daan ko eh, gisee na ko añaan waaye dama ree rek parce que añaan nekkul suma bunti nekk ah, añaan fonkul muur bur yàlla mooy maye te gëm naa ne man sama wërsëg benn doomi aadama mënu koo jël moom Alpha nag yàlla xam naa ko Euh, seexoo nañ waxtaan dañuy waxtaan ci yeneen jamono yële passé rawatina that issue of Wally Seck bi bu leen fàtte indi woon naa ko teg ko euh, moom it mu indil ma ci leer ku am fit la te loolu neex nañ ci ñoom parce que métier bi boo ñàkkee fit rek doo dem te comme li ma wax na rek Alpha du Eva neexuta songa bala nga koy songa da ngay waajaat waaye nag tamit doxalinam euh, tamit war na koo seetaat bu baax a baax saka su demee ba doxalinam feeñ askan bi jël ko duma ko kool si suuf parce que jamono dafa tëddee di koo kool mu ngi laa record jamono ji te nag man li ma wax ak yow si suuf rek ñeme naa ko wax si penc mi waaye bu wax bi demee bi egg si penc mi rek nañu ko leeral li lay tax tey xew-xewi jamono débat yi parce que nag loolu bokk na ci li tax du may seetaan vidéo alpha lack of on professionalism am parce que nag métier bi boo ko joxul cër bu yàggee rek dinañ nangu cëram te dafa mel ni ki waxtu bi mu ngeen nangu cëram te ñun Gambien yi nekk ñoo xam ne ñu naxaree diilal lañ léegi-léeg ñag ñu ne duñu dee support waaye nag léegi-léeg suñu jikko tax ba duñuy support kon ñu bàyyi loolu tam xel euh, parce que am na alpha comportement yi nga xam ne defoon na ko ci xew boobu fan naa xale buñ doon xewal kenn ci xale bi ku nga xam ne mooy borom wedding bi am na ni mu ko waxee am na yenn yi doo ko wax directly si caméra bi is very very undone euh, barki démba bu ñu fàtte ne am nañ li nga xamante ni euh, mooy gala suma team bi waxumaa ñëpp parce que defuma ko ci groupe dafa am waxi groupe ak waxi nit ta nit boo xam ne danga koy jël ci suuf ngeen wax li ma leen wax ñi nga xam ne ñoo seexa vidéo boobu wax naa kook moom mooy lack of professionalism bi nga xam ne tam gëstu naa ko fa muy waxtaan ju bari ji nañ ko wàññi suñu jëlee bagage nit ñi wala xewi nit ñi man Eva Sarr bu ma jëlee xewi nit ñu ci bari nañ ma doy sedde waaye bugguma ku ku wax li ma saf wala lu neex parce que ma ko man waruma xarit te yàgg naa di ko wax te duma tàyyi di ko wax parce que nag bugguma ku ma baab te bugguma ku ma ne you are doing well yaa fi toj yaa fi toj fekk tojuma fen euh, boo leen ko seetloo ñi ci bari ci xew dama leen dee wéef wala ma simaay euh, bàyyi leen ko xel ci cultural week bi dama de seetaan sumay vidéo sa seet any mistake bu ma def rek dama dee try pour rectify ko uh, su ma amatee beneen contract pour war koo mun a def mooy tax nga doon ku dul juum waaye boo jëlee programme seetaanuloo ko nga xool sa mistake si ngay dem ñu naan la you are doing well te Gambien si nag ñu gaaw a mun a bëmax nit lañ parce que kooku ma waxtaanal li ma wax noonu si alpha mu ma man suma ma xew alpha photos laa ko jox ma ne ko alive choice la ma ne ko waaye man alpha bu ma amoon xawaare sa ko vidéo waxatuma laa nag ma am li nga xamante ne mooy xew parce que nit ñi mën a ñëw ñëw toog xale bi si boppam ku ñu doon xewal foog naa ko ne something alfaa ni mu ko tontoo was so rude honestly nekkutoon loo xamante ne diggante mag parce que alfaa moo mag xale boobu noonu xale yi tey dañ gaaw a mag parce que yebeel nag bul dee nangu mu dox sa diggante ak ñeneen si nit ñi ni mu ko tontoo suma fit bee dem suma fit bi dafa dem wallahi lal azim ma ne waaw ndax nit góor sax dina mel ni war a mun a def yi ba pare ñu fay la dégg nañ tam ci biir vidéo yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koo def ñu ne Alpha ñu ngi koo fay xaalis bi takku 25000 ah, videographie photographie moo gën a expensive ñun la rek ci Gambian community bi Alpha Facebook live bi mu ngi koo defee 200 pounds ah, muy over 10000 dollars si léegi si currency bi dafa métti loolu dinaa ne képp ku koo fay rek bu leen ko teg but ci xaalisam parce que nag liggéey bu métti la moo def buñ ko ko fayee jaadu na buñ ko ko fayul jaadu na parce que liggéey taxaw suba bi guddi dafa métti mu ñu ne déeta waaye léegi-léeg ñu fàtte vidéographie sax pour ñu lekk so si amut fula bu baax rek soo moytud yow doo lekka duñ la jàppee ni te léegi-léeg xew yi dem ba jeex yow duñ la faale sax daf dee am dunda naa ko fi du jeex nga dem si xewi nit na ci dawal ko suba ba guddi bu moo ñibbi ni la ma rombe ak motoom bi du la seet sax di la bàyyi xel ne ndax suma vidéographie bi àgg na si jàmma bi ñu eewu suba ba kool la sax kon ñooñu boo leen caajee jàddu na nga caaj leen du ñëpp nag wax naa leen du ñëpp bu ñu waxee rek du ñëpp kon loolu tam nañ ko bàyyi xel ba pare xewi Gambia nekk loo xamante ne tamit lu métti la bu ñu naaj bi Gambia naaj bi rek isa kiila ñoom ñu war a nekk si naaj bi suba bi guddi ñu nekk si seen tanta yi nekk si seen xawaare te jigéen seeni langa du jeex kon na kooku buñ ko fayee 25000 eh, jàddu na ah, fag naa ne ñun Angleterre rek la vidéographie cib fii nii parce que nag wax dëgg ne yàlla America they are paying thousand dollars laa utal room and then fag naa ne léegi éeg na sax si Bajen production mi ko def ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi koy def parce que Amérique dañuy delloo nit ñi seen i gëdda waaye ñun Angleterre wax dëgg yàlla xëy na nag euh, li ma wax la rek euh, bu ñu xoolee liggéey bi nu mu métti te liggéey bi fu nekk la métti duñu dee gaaw a jox suñu gëdda waaye man li ma la dee wax rek Alpha bu la nit ki joxul sa gëdda yow nga jël sa gëdda parce que na man Eva kenn du ma yab suma milieu vidéographie mukk bu ma demee ba xam la ba suspect la sax du ma jël sa yëf xanaa wax jeex na du ñàkk nag ay ay ay ay obstacles daf dee nekk si suñu yoon léegi-léeg ñu tasee ñu réew léegi-léeg ñu tase ya Gambien yoo xamante ne waaye li ma dee wax la rek société boo gis rek am nañu réew li tax man léegi ma bàyyi vidéo sax ma ne Facebook live rek laay def parce que coono bu ci nekk rek mënuma laa wax nu mu toolu soo ñëwee jël kaseti jàmbur yi ñëw fii te comme ku man Eva lu ma jël dama koo deliver te su baaxu dama laa delloo wala ma compensate la xanaa mu nekk koo xam ne dama la jege ma miin la yow duma la dee faale sax parce que dama xam ne dama la miin ku ci mel ni ki Awa te Awa bu ma ko joxutee vidéo jox naa ko album foog mu am lu ma la jox loo xamante ne rek di nga am ci looy sukkandeku ci looy téye te moom Awa Faty nag comme li ma wala rek dem xewi ibaadu dafa métti te dafa naxaree edit loolu moo gën a tax yu bari sax ma tayal ci editing bi xaw ma nu ma koo lay ndeel op ba pare man suma signature dama ko respect bu baax a baax parce que bugguma suma vidéo génn ci YouTube bi ñu ne ah munu dara non non non fekk nag léegi xew bi moo mel ni mu géey na yéen a géey su ma ne géey xëy na xewi ibaadu yu ci bari du am musique wala du am xeeti eh, yëngatu yëngatu yi nga xamante ne bugga nañ ko ci moo tax dama dee moytu yooyu bu baax a baax a baax nga def ko YouTube ñu ko seetaan du bari wala ñu naan la kii mënu dara waaye danañ ñu dee jox suñ gëdda ñun vidéographie am na kenn ku ma taseel mu ngi Sheffield du ma wax turam Gambien boo xamante ne la wax naa ko bu ñëpp meloon ni moom damay gédda métier bi defal naa ko album ma tukki suma yaay moo nekk bu mu feebaree woon noonu septembre bi ma dem seeti ko mu kool ma ne ko maa ngi Gambia ma jógee Gambia ma ñëw ma kool ko ma ne ko egsi naa xaaruma sax mu kool ma parce que man ku ma jël sa avance rek du ma nelaw suma jëkkër doy na ma si ma kool ko ma ne ko egsi naa ma ne ko waaye may ma two days naa la jox sa album maa ngi doon liggéey ci ros te man du ma dee bëgg a liggéey ci presso moo laa wone du man kenn rek vidéographie ñi ci bari dañ dee liggéey ci presso presso bu ma kooku teg ma liggéey nit la damaa sonna te man si ñëpp tëddee laa dee liggéey diggi guddi ma bàyyi suma jëkkër ci lal bi waaye loolu du excuse parce que choice bi métier bi maa ko jël Eh, man maa taxaw ne damaa nekk vidéographe kon nag bu ma waree wàcce suma lal bàyyi fa suma jëkkër loolu yow ne kenn nekku ci choice bi maa ko jël ma toog di dugal netaal yi parce que nag fi ma ko dee seen maa ngi def everything ma click def yëpp waaye ndeket juum naa parce que nit laa tamit xëj na maa ngi soonoon waaye maa ngi force suma boppa benn ci netaalam yi fa guma loolu rek kaas na ko kaasa kaasa kaasa kaas be dama ko mujjee replace al another album suma yaay gañu ci diggante bi mu ngi mu ngi warona dem Gambia luma wax naan tontu bu rew la ci tagal sax naan mané ñun jurit lañ ñetti fan rek lañ ko dee joy mu jeex ci ko xamné yaayam dafa génn aduna alele aduna fan la ko jar koku dama gestu sax ma ko ko delloo xaalisam mu tontu ma tontu mu nahari bolé ko ma ngi amon nahar ak dëcc bu ma ma don joy suma yaay nak fu kenn nekkut mu tegal ma ci ay audio wax yoyu nonu mu don loo xam ne ma won dara rek lu du ko xaalisam waaye nak jikaram ko am ngor la jëkkëram tax na ma daal jëkkëram tax na ma tey jëkkëram tax na ma liggéey sax ba dem extra ma defalaat ko beneen album parce que man dañ ma jàngal ne nit ki su kontaanul rek deliver wala nga delloo ko xaalisam te dañ ko dee spend nag li ci bari li ma leen wax la Angleterre su baree ba bari ñi fi dee fay romb 300 pounds ci man laa wax romb ko benn benn la every hundred benn ñoo koo fay te du ma oosede turi parce que du ma xeebal kenn poosam ñu ñu war a jënda ticket train ticket wala ñu jënda suñ essence suñ moto pour ñëw nekk fa nag suba ba guddi nekk si seen bési taxaw suba ba guddi nag di leen liggéeyal ah, foog naa ne yéen a saay sax ñu négocier daf ko dee jar parce que nag yéen a ngi taxaw sabarkat yi taxaw géwél yi taxaw ngeen ibi seen i kalpe di leen may waaye fàtte ngeen vidéographe bi léegi-léeg ñu téye lekk sax sex ko bugg a lekk duñ mun a lekk ñu ñoo oyee fu nekk dañuy teg suñu yëf dem léegi-léeg am na benn xew boo xam ne tuuti ma daanu fa te su ma fa daanu woon xëy na gaañu laa doon jël wala yi si bari sax suma lampa a am accident parce que yi la mu li nga xamante ne mooy safara man maay war a am pour binda pour teg dem na ci ba ñu ci bari xamuñ parce que jànxa boobu xamutoon bu ma doon line albumam bi ni ma ko ko line dobee xamu ko parce que suma liggéey la lim doon kaas jarutoon a kaas waaye dafa am ñoo xam ne kaaskat lañ te kooku si kaaskat yi lañ bokka ma jégalu woon na ci ku ma boole woon ak moom lool parce que nag ma ne ko su ma xamoon kii du ma jël alelam parce que man du ma liggéeyee noonu waaye ku ma boole woon ak moom wax dëgg seexawu maa moom benn wax bu bari suma diggante moom te ba sax dama ko laaj feedback parce que daf ma dee dimbale pour man tama ma improve ci suma liggéey waaye kooku ma feedback ma jégalu ko nag ya ma ne ko yaa ma boole kii waaye nag ni ma tontoo ko ko tontoo rek dama ragal mu xaru parce que mu ngi tasee ya nag ku ku xale mu Eva man mun naa nice before fu nice am waaye boo maa jaay rudeness dootoo ko doole ci këri aduna parce que dama la koy won bam jeex tak parce que nag chat la ñëpp a nampal lu des lañ ma jox ma jël yaay waxut ma bàyyil papa waxut ma toga man kay wa degan ne yàlla ay mag sax ñoo yar suma ay mag suma siblin si ñoo yar waaye bu desee si ndey ak bàyyi la kenn waxut ma toogal bàyyil waaye nag boo demee ba jamono puus la eh, foog sa dina naan dama réew du ndam waaye nag kooku nag seexoo bu ma na moom ci whatsapp bi ci ay audio dootu ko doole parce que man nag dafa am nooy ñëwee ci man. boo ñëwee ci man ci yar ak technique discipline dama la koy delloo ba mu jeex waaye boo ñëwee ci man ci roughness doo ko dootoo ko doole. mu wax ma lu ma naxari li ma def mooy dama noppi ànd ak jooy bi foog naa suma yaay bu mu amee ñeneenti fan laa toog di edit kasetam bi maa ngi ko edit maa ngee jooy maa ngee edit maa ngee jooy lu ma bëggoon rek mooy yëfam génn suma kër parce que di minute ma dugg ci whatsapp bi déglu audio mi rek dama dee jooy ci kàddu ci jigéen bu ma wax wax yu ñagas yooyu naan ma ñun julit lañ after three days rek dañ dee mun a fàtte yes julit lañ waaye ak ay nitam ak xëj na ku fonkut yaayam wala ku joxut yaayam cër mooy mun a fàtte yaayam waaye man munuma woon a fàtte suma yaay te ba tey ko mun a fàtte waaye nag ma jox ko alalam ba pare emut ci loolu dama ko defalaat beneen album free mistake bu mu wax moom la def si nataal bi mu goma dama ko mayaat beneen album free boo xam ne fayut ma ko ma jox ko ko parce que nag du ma dee mind pour ma lose parce que dama ko def rek because of passion fayut suma bil si de man damaa xëy di liggéey di daan suma doole nag te aw ma jot aw ma taa dama ko def rek pour dimbale jigéen ñi waaye vidéographie fayut ma fayut ma fii ak fële sax la ma fayut fayut ma ci fen suma jëkkër léegi-léeg mu ne ma ne why you wasting your time why you keep doing why are you just doing this ma ne ko I love it this is passion ba pare dama bëgg a dimbale jigéen ñi parce que dama xewoon mu métti lool nag man suma kaset maa ko jëli si Moussa Sarr man suma closing maa ko dem def kër Moussa Sarr Moussa Sarr close alut ma because dafa pare bi léegi-léeg ñu bari sax complain si man kaasi Moussa Sarr dama deere rek ma ne ko waxtaan leen ñun ñëpp ñoo bokk a Gambia waaye nag léegi-léeg daf dee dunda yu métti yoo xamante ne su dëgëru tuuti rek dinañ ko yab saka jigéen ñi kuy di la ñoom soo strongo tuuti nañ la yab waaye tamit moom it warta nekk góor boo xam ne dafaa takamalaan di defante ak jigéen ñi wala muy defante loo xam ne sax openly si public bi nit ñi dañ koo bàyyi xel man Alpha du ma seetaan live vidéo neexeewu ma ko nag xew bi neexeewu ko wala riseewu ko dama ci dee gina parce que nag xëy na dama ko jànga ma xam ko te gis naa lack of professionalism si biir métier bi waaye ñu ngi dundal loo xam ne mënuñ leen koo wax yéen du excuse nag jëlalu ma ko excuse layalu ma ko waaye nag na gën a defaraat toogaayam jot naa ba tey nañu ne alpha mu ne dafaa bàyyi lana tax nga bugg a bàyyi alpha pourquoi lana tax nga bugg a bàyyi bu fekkee loolu nga bugg nit ñi xam nga la ci aduna ñaar la dina am ñu soppa dina am ñu bañ waaye nag bul tax ñu jox la nag li gën a li tax ñu gën laa xarab bum bum di jógee ko ci yow comme li ma la wax la nii am naa incident boobu noonu am na keneen tam am naa incident bi suma sista bu nekk Yorkshire ñu naan ko Siré Manjang kooku lu ma ñaam si kaw suuf ko koo may am na si ñoo xam ne dama dee bugg a siis sax ba pare delloo leen xaalis téye ko waaye keroog bu ma sirima ñang koolee ne ma dama bugg nga jox ma kaset bi sen ko suma post two days la am ak man ma seen ko ko two days dañ dee dem through a lot loo xam ne we can't just explain it léegi-léeg nga dugg technical issue nga am ko sa computer bi danga koo yóbbu ñu def ko léegi-léeg nga ñëw nga record si sa si sa device boo yóbbu wala sa caméra bi la nga dem nga record nga ñëw nga dugal ko doo gis recording bi dañu dee off nekka fekka skip nga loolu miss nga ko soo tryee pour explainal boromam mu ne la mu ngi ut excuse wala mu ngi try to be defensive jigéen boobu dama ko may dama ko jox album mu ne bugut ko woon beneen bi dafa ma répétalaat ko beneen ma defaraatal ko kasetam tambi part one part two part three yooyu yëpp ma toog ko ma jógee fatam ba pare en laajal ko netaala may ko ko firi parce que ma ne ko goor nag nga ko seexal de du ma lekk alali jàmbur man bëgguma riba xaw ma riba te dunduma riba xaw ma ko man lu ma lekk daf ma law te dama koo liggéey ñaxa ko man si seen xew yi ba mu jeex xanaa soom loo ma bañ ban sax di nga ne dafaa liggéey parce que nag aw ma time pour a toog di langa di waxtaan li ma fa yóbbu loolu laa dee dem def man bañ naa ko ba si xew su ma tongooyee boromam wala aw ma koo boromam sax borom xew bi laa dee seet parce que nag kooku fayul ma kooku ma tongol lu tax duma ko vidéo parce que aw ma koo moom duma wax ak moom déedéet loolu yëf yëfi xale la am na yéenay comme li ma leen dee wala rek man maa ko mag dinaa la netaal dinaa la vidéo su jaree soo sansee dinaa la wone dinaa la jël ba yow sa boppa ni nga ne waaw ndax du Eva mi sa juboo la moo ut ñu tasee man ak yow ñu delloo waat tongoo ba ca boy boy ba déggu olof de waaye Alpha defaraatal sa toogaay ni nga dee def ci vidéo yi di xarab nit ñi seen sa jigéen ñoo fa nekka borom xew yi ñoo la oo pour nga vidéo leen lu wal lu waay def rek xëj na Alpha boo taxawee moom sa du la ko wax parce que du gis fit du gis ñàkk fayda boobu si sa kanam waaye nag nekk ci vidéo yi di xaste di wax ekati yéen a kàddu yi is so unprofessional and so undone duñu ci tama tamambaalo lu bari dañuy dem waxtum gi dem 26 minutes def nañ ko ci alpha ñu jaala dem ci leen jeng ndeysaan cey yàlla yàlla ñu yàlla musal si seytaane daal ci gàttal bu ñu moytuwul sax ci leen dinaa ko skip parce que nag kooku ñaan ma mënuma koo bañ a may dara waaye nag comme li ma wala rek audio ci leen jeng bi na ci jigéen ñi jàngee waaye nag tam li wala ñun ba tey jigéen ñi dañ dee wax women empowerment waaye ñun ñoo gën a nekk duma si suñu moromi ay jigéen ñun ñooy lekkante parce que ci leen ñim taf ci booram ñim óolu ñu ci bari nekk nañoo jëkkëramaa ñim taf ñim óolu ñu bari si boppam nekk nañ ak Abass Abass nag góor boo xamante ne la dafa am xaalisam rek xam nag lu jigéen ñi Gambie yi bugg a mu jox leen ko ba mu mut sëg muy lan muy siiw ak tur moom Abass loolu la xam mu jox leen ko ba mu jeex Euh, bu ñu fàtte ne Abbas dafa fekk Chileen mu ngi doon liggéey mu génnee ko ci Chileen mu ngi doon liggéey Ecobank foofu la doon liggéey moom Chileen si banque la doon liggéey Abbas bu mu ak Abbas si la bàyyi liggéey boobu te góor ñi ci bari mel nañ noonu te loolu jàngee leen ci yéen tam jigéen ñi lu sa jëkkër jëkkër am xaalis am na ci yenn yoo xamante ne sax bu la ci buggee génn naam dagana na ngaa dégg ñu ne la sëy sëy la jaamu yàlla la waaye tamit préparel sa boppa te nag wax nañ ma ne ci leen tamit wax dëgg ne yàlla euh, bàyyiwut boppam noonu ci sëy bi li ma min bàyyiwut ba boppam du ci ay gàllaaj de déedéet li mu war a am ci biir sëy bi am na ko ci namul dara nag ci biir sëy boobu noonu kër boobu ci leen dëkka yes Abass moo ko sampa ci li ma jot ci information waaye ci leen moom moom laan bi ci leen moom moom euh, lifin bi laan bi ci leen moo ko moom Abass sampal ko ko kon nag dina métti lool pour Abass war koo génnee ci kër gi te naa ne ci leen tamit jàng ndoxewul pour mu war a jël kayit bi def ci turi Abass ba pare lan lañ war a mën a njëkk a kan mooy Abbas fan la demee xaalisam bi yii yëpp jaaru nañu koy gëstu di ko xool waaye dañuy eewu rek sénégalais yi médias yi sax ñoo ko bindee ne Abbas is a Gambian millionaire fan la Abbas amee xaalisam bi te gëstu yu bari boo koy def rek nit ñi dangaa dégg ñu ne la dangaa añaan waaye yéen ñi nga xamante ne sax yéen a saye Abbas ndax gëstu ngeen Abbas fa mu amee xaalisam bi number one déedéet waaye parce que nag Abbas mu leen a fajal seeni soxla Abbas nga xamante ne yéen a dee xeex li nga ne mooy abuse jigéen yu ñoo abuse foog mu ngee abuse jigéen ñi Abas mungkin abuse jigeni. this is financial abuse because mungkin jel hal xaalisam taraangaam di abuse jigeni, didn't treat leen anyhow and I think that is so undone Why nak Gambia rek la ko mun parce que Gambia women's right bi women's bureau bi jóguñ pour ñu mu mel parce que xejna buñ ne Abbas la rek am na duñu ko bugg yobu fenen wala def ko lenen pour lan ak abas moy kan pour di toroxal jigéen ñi rek sa su nekk moom Abass boobu noonu dem na taka Aida Samba waaye laataa mu doon taka Aida Samba ci leen tamit bala mu doon dugg si fekk na fa ku ñëw wa Fatou Bojang Bojang Sankaranka kooku suma njëkke la ci leen du musa neex nag du musa neex parce que keroog bi nga xamante ne Abass taka na mu indi la ci kër bi neexutoon Fatou Bojang faatu boole na pat ak tey noppi nga amoon sa kabu sa kabudu nag sa kabudu yu nekkaa sa jëkkër ñoo nekkoon sa kabudu di la xambal di def ngay xew di battare axa ah kay ku sa jëkkër am xaalis na nga battare di sañse loolu ak loolu jigéen nga macha allah sa jëkkër su la ko mayee defal ba mbaax waaye nag léegi-léeg ñu ne tamit nañ dee bàyyi xel suñu wuja yi nga xam ne ñëw nañ ñu fekk si leen waaye nag démba yow ci leen seet nga woon tey bu ñu indee seet sa kaw muy Aida Samba nag si la sa noise gën bari ci internet bi parce que nag jamono ju gi sa noise bariwul man waruma la de utuma leen parce que nag yéen a ngi ci internet bi aaduma ci kenn xarit su ma bëggoon aat leen friend wala jël beneen tur di leen follow di leen toppa waaye xamoon naa ne gannaaw bugg ngeen seen i génna bés dina ñëw xëj na seen i yëf dinañ ko teg ci table bi te yow ci leen mosoon naa ko fee wax ma ne yow Abbas daf la fekk ci taranga Abbas fekkut la nga ñàkka ñi mu takka xëj na Aida Samba moom moo defal boppam ci taranga woykat la waaye Aida ñëpp xam nañ background na judduwut ci famille bu am parce que nag ñëpp gisoon nañ Aida ba tey ñu gis ayda parce que yëpp fi la ñu fekka Fatou Bojang moom xaw ma ko wax dëgg ne yàlla mënu maa wax ci moom lu bari waaye nag tamit tey xëj na suñ demee benn aawo bi dafa complot ak ki nga xamante ne mooy seet bi ñetteel bi de Aida Samba démba ci leen complot woon na tam ci kaw awo bi nañ dégg rek la yàlla buga ak ay groupe am yi nga xam ne jot nañ ne ñoo nekkoon na jëkkëram waaye jigéen ñi tam mu nekk ñoo xam ne ñu soxor lañ jigéen ñi ñun ñu nekk ñoo xam ne ñun ñooy gaañante si suñu biir ci leen ngeen dem këram mu introduce leen ak jëkkëram seen fiti di dem ngeen gis kër bi taraanga bi bagaasi xew bi xëj na ak or yu moo taka ngeen ñee ci bay nag dox si suuf ak jëkkëram di nekkaa moom yéen ñu tilim ngeen yéen ñu ko def xam ngeen seen bopp ngeen waaye nag soo bëggee xarit bu bari tam ci leen li daf la si dee dugal xarit yi nga xam ne dañ laa jay rek naan la toj nga fi yaa fi toj ci leen Abass nobut kenn ku dul yow Abass lii Abass lele yow yaay xoole Abass Abass nobut kenn yow la ka xolam bi am na yéenay doo ko nangu boo amee wujja foofu noonu erreur bu mag nga fa def doo ko nangu boo amee wujja waaye nag léegi la comme li wax la rek dangaa dégg ñu ne Abass jox na boppam ci leen fàtte na Fatou Bojang yow ci leen nga yaacaa yumbe rek di dem nga fogoon ne xëj yow it sa bés du musa ñëw te luma de wala rek góor ñi su la takale set yow nga nekk set bi mu am awo mu nangul la yow yu bari bayil sa xel na la elek dina la takal te nim la def non nim la defon mo awo bi non la non la mo def set bu ñu aw ma da understand ngeen ma so nañ ci de bàyyi xel bu baax a baax ba legge leg mu am yo xamne ne sax suñu ko góor bi bu def lo nañ bañ parce que nañ set nak ne ñun jigen lañ te kuñu ko def du ñu neex nga xol nak awo bi nga xamne mo nekk ci sa gannaaw nga ne ko lii duma ko nangu am na si góor yoo xam ne sax dama ko généralise rek ñu ngi am seen jabar yi duñ aye suñ buggee dem programme bu nekk seet bi la ñoo àndal te xam nga ne ayewuloo bul ko accepté bul ko nangu parce que ëllëg su di gisee keneen ci biti daf la koo def te bu boobaa du la neex Fatou Bojang nooy sam bariwutoon de waaye yow keroog bu Abass ay da Samba ba tey ci leen sa noise dafa bari indi nga fi ketchup ñu play vidéo bi seetaan ci leen ak li ma leen a indil yëpp seede naa leen koo tegala ah. may leen ma tuuti rek eh, Pape Diouf bu ñëwee Gambia moo tax may leen internet bii nii nit ñi dañ ko war a oytu waaw man fu ma dem nii may leen ma tuuti rek eh, ma seede naa mun a pull out vidéo boobu noonu ma pléyal leen ko rek ngeen seetaan ngeen gis li nga xamante ne ci leen defoon na ko keroog bi nga xamante ne Pape Diouf ñëw na seet si ko baral leen ma de ma ne ko baral leen ma rek ñu ne fen dafa bañ seede ma ko ñu ne fen dafa bañ seede may leen ma rek euh, ma indil leen ko ngoog gis naa ko youtube rek dara fay ko ma ne ko youtube rek dara fayut youtube waaw may ma tuuti rek ah li dem voilà vidéo baa ngi ni ma share ko ngeen seetaan ah. Sëriñ Bamba waaw waaw billaay dëgg la Abbas Jaaju mu baax mi le 26 datu Abbas Jaaju la ak bébé ci le barke borom Tuba lii mama jatu tambiir ju mu baax mi sama yaay ji mais bébé ci le barke Sëriñ Bamba yaa ngi yëngal réew mi dara fayu la macha allah lañ ma doon wax yëpp gis naa ko teg naa ci bët li bébé baas wax na ma ko li baakan kontaan nga de gis nga bébé ci le kontaan nga macha allah barke Serigne Bamba bébé ci le ma ko bébé ci le lii la teeroo Pape Diouf bii fii bi fii biir Gàmbi Séeri Abbas Jaaju barke borom Touba bébé ci le Séeri Abbas Jaaju lu yàgg dëgg la yaa bëgg Abbas ba muy dëgg ci yow bëgg Pape Diouf ba muy dëgg ci yow sëyal Abbas te kenn xalabu la barke Sëriñ Bamba ah mama ah waaw laa yaa fekkee bébé ci la sama bébé yéen a déggal seen boppa ah? Ketchup mu ngi ekkati gaar gaaruwaale lii ci leen waru ko woon a entertain ay xaritam puus nañ ko ci ñeena ci ñoom waaye nag ndax waxtaan na ko ak ay nit ma wàccee vidéo bi rek ngeen mun maa gis waru ko waroon na entertain at all parce que ketchup yi mu fa doon wax yëpp ay xeeti gaaruwaale la ketchup dafa neex tey mu ñëw Gambie de waaye tey bu fitna jógee woon réewam la moo soppoon te Aida Samba la moo soppoon xaw ma lu tax ñun dañuy naan suñu ay garab su demoon ba ba ba mbir mi eega fu mu war a eega te or na ma ne tey yëg na ko xëj na mu ngi toog sax naan mooy daf ko mooy moom ci leen moom yal nañu yàlla musal ba ñu weex na loolu waaye dara ta ko lal foofu nag ci leen def na fa erreur waaye nag xëj na wuje la woon wuje moo mel noonu léegi-léeg dina la puus dugal la ci loo xamante ne rek dina la sonal muy ci leen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi wuje boo ko nangoo nangool pour wuje rek wujel nga continuer nga dem nga mañ sa nga toppatoo sa soxla bés boo amee wuje nag ñëppa la dee bugg a xam te ñëppa dee bugg a dem aat sa xarit mel nag am na ci ñoo xam ne Facebook noonu lañ mel ay ruubekat lañ ñu nga toog dañ laa def xarit def sa ñaari wujja yëpp xarit nag di leen seet di compenser ne taale loo def nag ñu jël indi ko waaye fekk nga may leen ko wala yow nga nangu ko ngeen gis ko bu Pape Diouf ñëwee xeeti gaaruwaala yi Abbas yow la bugg a Abbas yow la nopp fekk Abbas am na awo am na ñetteelam Aida Samba ku ci nekk nag xanaa xooli Abbas bi moom suñ ko dividé kon xool desatu fa te ci leen waxoon naa la leena ma ne la jëkkër yi ñëpp jarul xuloo jarul xeex xaw ma na déggoon nga ko jëkkër yi ñëpp jarul xuloo jarul xeex maa ngi amee benn vidéo Abbas ak nataali Abbas vidéo bi dama ko delete parce que jigéen bu fa nekka bëgguma koo tooñ te duma ko mus a génne te dégg naa ne sax loolu tamit génne na ci internet bi Abass tuumal na ki nga xam ne mooy ci leen mu ne ci leen moo ko tasaare ci information yi ma jot nataal yooyu ma amee Abass ñu ne tuumal na ne ci leen moo ko génnee Abass nekk fa ak beneen jàngat te si kaw loolu noonu Abass mu ngi bugg a nekk player de te yéen a ngi koo yow ci leen est ce que bu Abass amutoon xaalis di nga toog ci sëy bi yenn saa yi nañ leen day jël suñu gidda ñu jël suñu respect bu tax góor gi mu am xaalis rek mu ñoo maltraité nu ko ne yow juddewuloo ci ci ci ci yow juddewuloo ci may ma ci leen juddewuloo ci may ma alaaji Badara Jeng sa baay kenn yebu ko woon liggéey na liggéey la xam dugal na leen fi mu leen war a dugal ci school yu baaxee ci leen yow ci school yu baax nga nekkoon Mrs Ndaw school bu baax nga nekkoon ci leen yow namuloo moto namuloo étage ñi ko nama moo nekk xëj na ñi nga xamante ni ñooy topp Abbas waaye du yow namuloo ko yow lu tax Abass war naa def jaamam wala muy def yéen a game yu moo play ba pare yow tamit nga nangul ko ko di ko ko accept demoon na ba ci leen sax xew bu mu dem bugga na géwél yi wala ñëpp fesal ko ne moom mooy moom la Abass Ndong moom la Abass Ndong parce que ñu ngi ko seetaan ak si Sénat bi ah. am na si ñoo xam ne seen Sénat ñëpp a koy gis kon ngeen bàyyi loolu xel rek yéen ñi nga xam ne am ngeen wuja waaye nag kenn du yéen ñi nga xamante ne yéen ay sàkkuli ci leen bi ngeen jam ko paaka ba pare tok diko xol xool yéen a soxor kay len soxor yeen ñi nekkona jikaram yeen lay waxal xam ngeen seen bopa yéen na soxor la nata jigen bon ngeen dem ñe ci len mu antara len si këram bi won len kiram bi nim mel xëj mu wax len ne la li ak li lako defal rek ngeen ñe ko tek ko bóot lolu moy añaan lolu moy jalousie ngeen gannaaw ko jikaram ngeen nekkam ku dem sa abaas ceesut leen yéen yéen a ko si juus parce que jigen dafa bari pexe ah. ku dem sa abaas ceesut leen yéen a ko si juus yeen ñi nekk ak ñom wala yéen a def seeni pexe ba Abass toppaleen beneen bi nga xam ne tam Abass disrespect na la fa ci leen mooy keroog ci Pape Diouf bi oo nañ Abass ngay gestu di ñëw ma seetaanaat vidéo boobu noonu rek tey tegal leen ko ah ma seet na dinaa mën a jot vidéo bi may leen ma rek yëpp dama leen koo indil ci kaw taabul bi na leer ma seet na video bi ma ngi ko amee Ehm, sim card bu ma doon use nag bu ma ñëwee dama suma nomba yi yëpp a yëpp a dem su ma ni koole rek laa dee store gis nga dem na dem na génte woo ma ko woon noonu waaye ndikoon dinaa ko doon ut vidéo noonu ma playal leen ko ngeen gis ko mun suma ay kaay fi fu ma ko denca dafa sori su ko fi buggee génne tey moom dama ragal ne dinañ fi fanaan parce que suma téléphone bi dafa bari ay bagage trop Torok, torok, torok, torok. Mailen, ma rek ma seet te soo yaakamtee nii tamit dang dee bugga di ut doo ko dee mun a gis ama seet da dinaa ko gis far ko senoon sax fii light bi mu ngi téye suma bët bi xama seet la dinaa ko mën a gis foog naa gis naa ko de déedéet du bii du bii yi daal ma seet xama seet la bii la jigéen ñu ngi ko woy may gis ci source vidéo bi ah Chilel mu ngi nii ñu woy ko Abass ñu woy ko Chilel di wone jëkkëram lañ woy kuñ bàkk sa sa jëkkër li mu war a njëkk a def sa mooy toppala waaye yéen a ngi gis si second vidéo bi Pape Diouf dafa war a mun a am pour dem si Abass te ci leen mu ngee maye mu ngee gestu nañ leen moytu media ak ñu ko xam waay nañ leen moytu Eva waay wax naa leen ne damay seetaan waaye du ma em ci seetaan rek de keroog bu ma seetaanee lii dama mer parce que yow ci leen wane nga fa ñàkk fayda nag bu mut sëg continuer sa maye bu Abass ñëwee c'est normal bu ñëwul c'est normal waaye wan nga nit ñi sax ne Abass tam wan ne he wasn't willing ba Pape Diouf moo ñëw jël si ko Abbas doog a jóg wat fa ak kan mooy Abbas continuer samay rek bul ko gestu sax waaye ci leen mu ngi doon gestu rek vidéo bi mu ngi YouTube soo leen ci bëggee am dara lu leen leer rek ngeen seetaan ko kon nag ñu bàyyi loolu xel waaye nag ñu ñëw tam xëj na ci audio bi tax eh, ci leen ak Abbas seen say jeex muy mbiri audio sëriñ bi xam naa ne nag ñeneen ñi dinañ ma waane nga parce que ñu ma doon xaar ci vidéo ah, voice note ay da boos bi ak ñeneen ak ñeneen si seen wàllu sëriñantu bi liggéeyantu bi waaye waxuma ci te xam naa yéen itam di ngeen xam la na tax ma ci duwut ne wax bu nekk laa dee duga de non non non non maam ak loolu waaye loolu dama pile rek ma déglu rek ma delete bu bu ñoom ay boos bi dama click rek ma déglu ma delete aw ma ci woon interest parce que xam naa fu wax bi junni ak tur yuñ doon o aw ma ci woon benn interest man duma dee bàyyi dama dee gedda te am na tur yu fa nekkoon dama leen gedda mënuma woon a continuer déglu ba pare dafa guddoon lu déglu lu gudda duma ko déglu daf it was too long ay tam dama busy du ma liggéeyu ci kër bi su ma liggéeyu kër rek doy na ma wax ak déglu ba pare sax loo xam daf maa njëriñ laa dee déglu waaye du ma déglu loo dafa waste suma time because time is is is is is so expensive on my side time is money pour man aw moo pour war a toog di déglu ay yeena waxi kasaw-kasaw moo tax débaawuma ci am na ñoo xam ne wax nañ ma ne dégguñ la ci xam naa dina leen jaaxal ne boobu waxuma ci dana tax ma war a wax ci bu ci leen bi waaye gis nga ne ci leen yii yëpp dama ko amee moo tax ma teg ko ñaanalu ma ko woon bés bi de waaye because daf doon génne yëfam torop fan yooyu rawatina nag beneen bi nga xamante ne disrespect sa amaat na ci biir Abass lim ko def mooy bu Youssou Ndour doon play Gambia te foog naa ñëpp seetaan nañ ko play woon naa ko ak yéen Aida Samba jóg du wax ci leen taga Abbas gërëm Abbas ñu sét na dinañ mëna am vidéo bobu non tam pour ñi nga xamné gisuñ ko woon may leen ma rek ma na ko mëna am euh ehm, ah, ama sét fokk na mu ngi fi ma ngi ko screen recordoon yépp ma ngi ko screen recordoon yépp ma seet na dinaa ko pas amé fi parce que suma démé YouTube video ci dañ dé bari eh, duma ko mëna am bobu nonu rek was loolu rek ci leen war ko woon nangoo li tax ma ne war ko war a nangu mooy waroon ngaa woon Aida Samba ne ko sa réew la la fekkal te say kabudu ñu ngi fa woon de kenn jógut moo laa woon how hypocrite some of us are rawatina ñun jigéen ñi sa kabudu yi ñu fa woon toppala te tey xëy na ci leen li nga doon sax moo tax ñu bari bugg a xaritoo yow parce que Abbas moo tax ñu ngi la bugg a xaritoo wala ñoom sax ñu ngi nopp Abbas moo tax ñu bugg a xaritoo yow cousin cousin su dul jeex yëpp ñëw a forcer a dugg ci a am access to jigéen dafa garaaw de te jigéen dañ dangerous xaaral ma seet ndax dinaa ko mun a am vidéo bi non du moom du moom vidéo bi daal xaaral ma seet mu ngi fi de maa ko amee sa téléphone bi su baree bagaas da nga wóor ba soona doo ko gis foog naa gisoon ngeen ko bu Aida Samba doon woy ki nga xamante ne mooy Abass Abass jóg nag te yow ci leen yaa ngi fa woon ci Youssou Ndour bi jóg Abass jóg taxaw su doon góor bu rek la sax li mu war a def mooy mu dem ekkati ci leen wala xam na ne Aida Samba ak kële xarit lañ mu dem ekkati ci leen sax taxaw a ci leen ñu may Aïda Samba parce que nag Aïda Samba sa dëkk la la fekk de yow ci leen tey soo demoon Sénégal soo demoon Sénégal duñ duñ doyadeel Aïda Samba de man sa xarit laa ma bokkoon sa team bi maa ñëw fekkal fi nga toog nga demoon Aïda Samba yow yaay kan yow Aïda Samba su ñëwoon Gambie sax da nga ko waroon a defal party nga won ko ne ko yow dawuloo sala yaay ndeer yow yow daf la fekk si waaye nag doo daw xare waaye da nga dem ba Aïda Samba gis na ci yow complexe boo xam ne sax mooy Gambien yu bari suñu leen takkalee wuja ñu jógee Sénégal rek seen complexe dañ dee am complexe dañ dee drop down te loolu weakness boobu Aida gis na ko ci yow an waruloo ko waroon a nangu ci leen waruloo ko waroon a nangu at all jeeg nga Aida di jeeg nga mun sa bopp lool nag mu fekkale ci sëy bi na neex waaw waaw na neex bu taalee cuuraay yow xolal rombal cuuraay du dem na France ak def seen honeymoon yow it nga seet du nekk mbiri compétition sax waaye bu mu la si yéen yi te yow it bu ko bu ko bul ko si yéen yow yaa tax Aida Samba def action boobu noonu ma seet rek na dinaa mun a gis action boobu ma seet rek na dinaa mun a gis action yi Aida Samba bi mu ko vidéo bi gis naa ko jërëjëf YouTube mu ne ko jërëjëf YouTube yéen ko gissal sen bopa fenalu ko de sosalu ma ko indilu ko dara tegalu ma ko dara ay yefam lañu jox ci youtube ñu jël sen yef di ci analyse bi nga saka bi nga xamantene dem na be divorce nek ci su fa nekkutoon duñ ko ay Aida ah. Samba lim doon def ni ci leena tax mu def ko ci leen rek tax mu def ko si sa xel bi la baby wax nga ne man nga nop xana deklu xana Gambie yéen doo leen dee déglu texte Aida Samba waxi waré rek la fi wax wayu de gaaruwaale dor ma saga ma man yow la nop ñu baree ma toppa ma jéggi leen man ma ne yow la béy bi affaire bi yow la ah waaye nañ leen di déglu wax nag waaye yow ci leen yaa ngi fa woon ana sa kabudu bi man de laawa su ma bokkoon sa friend si ah ni ko déedéet ayda nag leneen la ñuy wax because dina xamante ne wax naa leen ko ndakaaru la pays de la taranga waaye Banjul la pays de la accueillir mun gan gën ci gan gaaw ci gan yow ayda samba boo xamoon ne mu ngay ñëw ci bi defal ko baabi kii comme li nga defal ki nga xamante ne mooy Pape dinaa defal ko barbecue def suma wolis nag du fekkee ne yéen ngeen ne seen jëkkër millionnaire la ana neex te Abba xam naa ne boo ko waxoon ne Aida Samba ngay telal million la laa jox wala bu la ko joxul sax si li nga seef lay génnee dem dinaa ko jëndal fu piis risee gambi dinaa ko def ci wali si Aida Samba bi teral ko wan ko ne man duma wujjee yow naan xëy na célébrité nga biir Sénégal waaye ma ne duma cooma suma réew waaye yow sa biir réew sax Aida Samba yëpp na la sa biir réew ci leen I was very upset very very upset sa biir réew amuloo fa kàddu ñi nga àndal sa ina saakul bi kenn xeexaadut la si guddi bi dégg nga yuuxoo yi foofu I was very upset very very upset with that video eh, benn bés dama doon waxaa nit sécurité la mu ne ma ne ges kan laa fi gis man xaw ma Abass man fan naa Abass bu mu takkee Aida Samba sax laa turi Abass te Abass Abass nag dafa bëgg a showbiz bi Abass dafa bëgg a feeñ dafa bëgg a fés Abass li moo def ni moo ko tey parce que moo tax mu dem sa seyaa Aida Samba pour milieu Sénégal bi di ko topa parce que si Youssou Ndour grand bal bi Abbas dem na télé yi wane nañ ko nga gis ko nag ni man dama xool Abbas ma ne non kii ci leen ak Aida Samba ak Fatou Fatou Bojang rek a ko mën a seeyala ah. kii Fatou Bojang ak Aida Samba ak ci leen jëng a ko mën a seeyal nañ leen bàyyee na ñàkk fayda yi because of góor ñi dañ am alal ci leen jàng mënoon ngaa dem te Abass du lay yeb tey su su Abass amutoon xaalis ñu bari duñ fa toog dem nañ parce que ku nekk bëggut wujja man Eva sar tey Mr Bojang jog suma takaloon suma neexee ma toog bu ma neexee ma dem waaye bu amee alal rek dinaa toog parce que nag sa yalatuma ko alal bi lay sa yal wala xëj na xeeti teraanga yi nga xamante ne te ci leen sa yëf torop ci ci bi sa yëf torop ci bi sa bagage dang ko day génné sa xewi sa yépp dëgg la waaye am ci yo xamante dang ko risaf gor do ko jox yépp may ko yépp te yow da nga demoon ba toog ba nga fa ne du dugasi koku du abaas parce que na dafa dafa bay awo de ñëw ci yow waron nga suuraale ne ëllëg sibir dina jël kenen teg ko sa kaw te tag bu ko tegee sa kaw neexutoon parce que na dafa melni ke si nga génnoon la ñëpp xam ci leen ngay forcer yu bokkat yu bokul nga ko génne ñu em fa rek bu ñu dina am leneen lu muy I stand in solidarity with my sister Chilin Dieng defaraatal sa toogaay eh, ñu ngee julli lu ñu mun di ñaan lu ñu mun yal na la yàlla delloo ak Abbas am ngeen njaboot te xam naa ne bugguloo kenn ku dul Abbas nobuloo kenn ku dul Abbas eh, kon nag yal na ci yàlla def déggoo lu luwaay di wax rek na rafet ëllëg mun na ñëw juboo eh, te su boobaa rek di ngeen sëga yéen nag jeeg ñi nga xamante ne da ngeen pare am na comme li ma ko wax ma jekkali ko sécurité bi gis na Abbas ak benn jigéen ni Gambien koo wax dëgg bu mako waxe mune mama guess what Abass la gis mané ko kuy Abass mune ma jëkëri ci leen ni la mako ko adressé sax ko ci ban ci leen mune ma ci jeng parce que ci leen ni dañ bari am nañ ci leen sar am nañ ci jeng mané ko ci leen sar mune ma déedéet kuy ci leen saar mané wa ci jeng mané ko ok mune ma mang ko gis ak diw sangam mané ko est-ce que du business trip lañ nekk di dem ni xëj na ñu dem fo xam dañ bëgg tok ñu mi net wax yi business mune ma fuma ma gisee ni ñaar this is not like a business trip ma ne ko netaalal ma leen mu ne ma duma ko def parce que xam naa ne dañ ko wone te su ma ko jotoon tey tey dama ko pile yow ci nga gisal sa boppa nañ bàyyi soxor bi ñun jigéen ñi nee ni loolu leen a toppee Abbas mooy lan because of xaalisam bi Abbas fan la toj sa si rafet Abbas su amutoon xaalis kenn si yéen ñi ko toppa nii doo leen ko toppa ngeen toppa Abbas rek mun ta concentré si sëyami because of chicken chain yi yim leen na jox netaali Abbas boobu duma ko mës a génne parce que jànxa bu ko seexal ak Abbas tam jigéen la foog ñu protect ko te nag damay protect jigéen ak ci leen rek de waaye janxa boobu demu toppi Abass de Abass a ko toppa parce que nag Abass fagu ma ne tamit manqué na ba war a jël jigéen war koo yóbbu ci kër ci leen wala di ko yóbbu ci ki nga xamante ne mooy kër Fatou Bojang fagu ma ne nag ay jabaram nag nalawee nañ noonu de fu ñu tasee fu nekk Abass mo koo fay Abass mooy dem ak ñoom mooy egg ñoom mooy tukkee ñoom mu ngi tukki ak ñoo xam ne xam naa leen sax ñu ngi fii toog fii ci Europe bi te Abass nag ñu ne mu ngi waaj pour takka waaye si Europe bi la moo jógee ci ñim nekkal ci Europe bi xaw ma kan la ci nag eh, saafaraam di jàppa parce que bàyyante naa ci leen mu ngi try pour sànni netam bi waaye tam ngeen takku bi dëgër te xam ne Aida waajut te waayewul pour bay Aida ni moo xeexee dafa civilisé gis ngeen ni mu xeexee ci leen biir Gambia te Gambia ñun ñu bon lañ ñun ñene ci ñun ñun ñu naafee xale guddi Youssou Ndour boobu suñ biir réew te Aïda Samba tey su doon ci leen moo ko fa def sénégalais yi dañoo faytal Aïda Samba ñun ñu nekk foofu Gambien ni di tàccu Aïda Samba non man keroog guddi Youssou Ndour bi ma doon seetaan ni tuuti ma jooy nga dégg Aba ni mu koo waxee waaye Aïda mi kum yàpp Aïda mi nopp na jëkkëram nga gis Aba kii Aba sax ni mu kontaanee si Aïda Samba li moo def noonu moo laa wone ñëw na bi sa dëkka sa wujje waaye nag xeexut xuleewut Aïda Samba fu mu la mënee jaayee fayda lu tax mënuloo koo jaay kalaas yow ci leen lu tax mënuloo koo jaay parce que yaa ko door nag yaa indi ketchup ak Pape Diouf def seen gaaruwaale wale it mu ñëw delloo la ko am na noo doon toogee Aïda Samba du lay yab ah, ñu neexuñoo yab de waaye nag dox nga bem la yab te yabel boobu pour nga dindi ko dina métti kon ñu close débat yi ci leen I stand in solidarité with her sëriñ audio boobu noonu duma ko play foog naa ñu bari jot nañ ko amul ku du dem sëriñ boo borewul boo borewul daan sa kaw nit dina bore daanu sa kaw léegi-léeg nga toog nit ki doo ko def dara mu am bëti mbañeel rek teg ko sa kaw bañ laa singili rek bañ laa wàcca am na si leen sëyukaayam la doon defar te am na ci droit pour war a defar sëyukaayam lan moo génnee audio boobu kan la ko ci leen seen ñi ngi naan set up la xaw ma ci lu ma leer aw ma fi information bu leer waaye kan la ci leen waxal ak lan a tax sa audio bi war a mun a génn yooyu tamit nañ ci bàyyi suñu xel jigéen ñi léegi-léeg ñu desperate ba dem nekkaa suñu jëkkëri xarit yi du yoon man de loolu seexlu naa ko wax dëgg yàlla xanaa yow sa xarit nekkal la fa nga dem ba nga xam ne xëj na mënuloo am doom munatulo amal sa jëkkër doom wala xëj febar nga munatulo satisfaire sa jëkkër ci kaw lal jaadu na nag yow nga ne ko mayna la suma xarit bi nga jël ko takko ko dañ ko daan def si waye dina fekk lolu sa ndigal la ñu tok waxtaan ko waye nak toppa jëkkëri jamburi di neka ñom si suuf so paree nga jël jabaram naan ko ya fi tok sa jëkkër nobul ken xamul tax ñun jigen ni ñun ñu bon ñu xamul tax jigen ni ñun ñu mëna jamanté jamante ci suñu gannaaw ñi nekkaa ci leen jëkkëram ñëpp ñi ci bari xaritam lañ ñi ci bari dañ daan dem këram ñu nekk si suuf nak nekkaa abaas tay nak Eh, li lañ leen amal kon nag ñu génn ci domaine boobu noonu seeti leneen ñu ngay jégalu na ci leen eh, mu ne wax bi daay na dunda na presso bu mété mété mété waaye nag gannaaw yaa ñu jox sa yëf comme li ñu wax la xew-xewi jamono every month la moo ñëw nit ñi mun nañ koo gisee ne débat bi dafa fay waaye man bu ma doon jot audio bi ma ngi ko jot on the 11 of February si jot audio ci leen boobu noonu kon nag ba tey ñu ngi ci maaj tey la maaj ñaata eh, ñu ngi ci maaj tey ba tey rek maaj foot ba mu ngi trend waaye nag comme li ma wala rek Eh, xamuloo kenn ku dul Abbas Abbas tamit xamul kenn ku dul yéen yàgg ngeen yal na leen yàlla delowaat ci jaama ak salaam waaye nag mu nekk loo xam ne tam da nga cee jàngee yow ci leen mu nekk loo xam ne tam da nga cee moytoo xarit waaw da nga cee moytoo xarit léegi-léeg sa saay mbokk tam la yooyu yëpp di nga defaraat sa toogaay audio boobu la na ko génnee kan na ko génnee war ngaa gestuwaat bu baax a bax a baax a baax dem nañ ba turi Mata Cissé génn fa loolu yëpp mu ngi gën a ban Mata la man suma boppa suma xel ñaaw na foog naa ko ne suma Mata bu nekk siiviw la Euh, ay tur di génn mu nekk loo xam ne war nañ koo bàyyi xel soxarante bi si suñu biir fan lañ ko teg ne kii óolu la nga nekk xaritam mu jël audio seen la koy nga jël audio tasaare ko nañu ko bàyyi xel si xeeti soxor yi massawu naa ko ak yow métti naawul ko lool ak yow waaye nag gannaaw buñu egsee si penc mi Eva du am xarit te du masla te ni ñu ko doon waxee ci ñeneen suñu ko defoon noonu lañ la koy indilee rek moo tax ñu tegal la ko yéen nag ñooñu eh, di wax si suuf naan xaw ma do doy mind business am ci leen moo njëkkuta mind business am moomu génnee yëfam moomu invite Pape Diouf ko filmé ko di ci wax ba internet bi gis ngeen ko benn tey mu ngi ci YouTube bi foofu lañ amee opportunité nag pour war a mun a wax ci moom ci yéen ñi xalaatee noonu kon ma dem rek seen na dinaa leen mun a may beneen vidéo den su ko defee rek ñu ñëw continuer li nga xamante ne eh, mooy suñu analysis ñu dem ak ki nga xamante ni mooy Assane Ndiaye mu ne xarit Live streaming. Aïcha ñu continuer rek xarit bu Assane Ndiaye ñu moytu ko bu baax a baax am na ci ñoo xam ne nag dañ obsesse trop ci xarit rawatina Facebook xarit yi yow ci leen tey li nga doon moo tax ñu bari bugg a xaritoo yow Abass tax na wala ak xëy na sa sansa yi dafa am ñoo xam ne daa soo obsesse duñ bugg a xaritoo nit de parce que dañoo seet am na ñoo xam ne ñu ngi toog si Facebook bi sax ñu ngi su dee yow da nga nice dañ laa def su dee da nga mën a sanse dañ laa def xarit is that real is that real am na si group of kaburu people yoo xam ne Facebook ñoom loolu rek lañ bugga nan fu tooy rek ah man de friend la ak ci dafa dafa sañse ori sol ori ñooñu ñooñu ñu obsess si yow ñi nga xamante ne matériel they are very materialistic moo tax ñu buggalaa xam buggalaa miin du si ci leen rek ak képp ko munti doon ñu bàyyi ko xel ñu read rek bu fekkee mun naa ne eh, maa ngi jëm mag de bu yaa ngi door di leen dem cey yàlla editing bi xadi maala xadi malak mu ne wow ba tey wax na ko mu ne absolutely it is upsetting indeed yaa faatu seka naana mu ne wallahi dëgga bu set nga wax Sarr jërëjëf sant yàlla suma mag Assane Ndiaye eh, waaw dëgga neexut moom Assane Ndiaye nitam la eh, kon ñu dem ci Jalimaari Kanouté Jalimaari def na vidéo moom itamit ñu setaan ko eh, mënuma ko woon a am na ma seetat naa ko am ma ko si background bi ñu déglu Jalimaari tuuti rek ci vidéo bi li mu ah dama ko muuf rek be fum mu olof programme bi programme olof la. nekk Gambia ba pare amul benn respect suñ compagnie si ñu ci ali ali baala den maa bi bi dama comme li ma doon wax rek si dëkk bi nga xamante ne am na yenn compagnie saa yoo leen saa ngeen day foo leen di soo demee si ñoom ñaar jox leen pour ma wan leen ne lii laa soxla di jox la ko waaye man jëlimaa di du ma saaga kenn du ma xuloo ak kenn man lii suma raay rek lay wax and then am ba ndikki soo gëmul sa bopp seytaane nga góob man nag dama gëm suma bopp waaye dama am right comme keneen ni mu amee right si dëkk bi di wax li nga xamante ne moo a naxaay because for the first time ma nekk Gambien di organise gala dina ma war a am suma waa dëkk war maa mun support waxuma sax individual dañ ma support hundred percent yéen a ngi dégg ah ama am GSM company si am fi ñeneen ak ñeneen ñu fi ba pare man suma xaalis mu ngi dugg si GSM company suma xaalis mu ngi dugg si nawek mu ngi dugg si yeneen ak yeneen ba pare ñoo ñu bañ ma dimbale man di dimbale keneen ci biti da mu a suma wo woo ndax man sa dama dee tok ma ndax man sa. waron na nekk Gambia tey am naa pour tok ci biti amna opportunity pour liggéey ci biti waaye ñun ñëpp suñu toogee si biti kan mooy taxawal Gambia. dëgg bu wér. lii mooy li ma njëkk a wax suma bopp loolu moo ma fi ba bi waaye ni konte waroon naa dem bu yàgg because man Jalima di leen di gën a disrespect si Gambia musicien yi yëpp da ngaa gis ay nit di créer ay stories yi nga xamante ne leer na la sax teguñ ko fenn man time bi gis naa ñu bari. def nañ ma invité defuma leen dara gis naa compagnie yu bari sidelines nañ ma te defuma leen dara te musuma leen na saaga musuma leen a wax dara waaye tàmbalan laa fii mooy e dañ wu dégga because ku dimbalewul wu dimbalewuloo dégga because lu Gambia di nama pour mu ñëw Gambia won na yàlla ma Facebook laa nekk waxuma ne keneen mënu koo indi de waaye si man la gën a si man la gën a gaaw because benn mun naa koo def ñaar seen yu mag si àdduna bi yëpp teg ma ñu ma yow ku la dimbali rek dem nga dem Youssou Ndour wax na ma ko ñëw na Gambia fii ma dajee ay koto yi nga xamante ne waroon nañoo mën a invest invest si ñun ñu dajee man si Youssou sen seen ay Aïcha duñu ko play yëpp Jaliba di wax na Euh, lana tax mu ne at bi musuta am event bu mel ni at bi euh, maanaam ci gàttal euh, event bi ni mu waroon a successfulé successfulé wut ko wax na mu ne approach na companies mu ngi cee jam bi mu ngeen ko dem seetaan damoo def live video on the 23 la ko defoon bu ñu fàtte ne on the 18 février Jalimadi mu doon tëgga foofu ci a nu mu tuddaati Coco Ocean Eh, on na ci compagnie yi ci mel ni ki nawek ak gamtel moom Jalimaadi ba tey ci biir waxam mu ne eh, nawek dañ ko wax ne ñaari yoon rek lañ dee fay ci at bi si la ñoo eh, sponsor muy New Year's Eve o New Year's Day ñaari si benn la ak Youssou Ndour su ñëwee Gambia mu ne gamtel moom ñu ne ñu ngi ñoom bu fekke ne ni ma ko waxee noonu la mo taxoon ma bëgg ñu play ko ñu dégg ko limu wax den ñu tontu ko bena par bena waye dafa melni ki waxtu bi duñu ko may parce que already uh, spend na fi one hour Mom Jalima di lool la wax waye ba tey si waxam mu ne three weeks to a month sila la dem ci compagnie yooyu di dinañ ci ñëw dinañ ko analyze. Uh, ba pare dina play some audios bu len ne ma ngi won ci ground bi uh, man suma boppam ma forcer pour bokk si bi te man xam naa ne su ma waxee si jalimaat yi eh, nit ñi di ngeen ne mbuleet parce que nag wax dëgg neex yàlla xeexal naa ko fu kenn nekkul parce que suñ doomi réew la waaye nag bi yoon eh, jalimaat yi dafa daanu dëgg neexul moo tax Eva amul xarit ñu ngi nii dañ créer groupe muy road to 18 février xam naa fii laa jógee soo moytuwul jalimaat yi dafa ma block wala mu baan ma warutoon na génn moom jalimaat yi soo alpha li ñoo wax si moom ne dafa unprofessional Jalimaan tam loolu la wone by doing Facebook live wan pack tey ñu ngi ko waxoon ne dafa bëgg a commit suicide ak yëpp lim def mooy dafa indi nit ñi mu def like a press conference Jalimaan yi loolu la waroon a def waaye so amutee team wala bëgguloo waxa sa team yi wala loo déglu moo taxoon mu ko doon ibi ma ne dafa mel ni Jalimaan yi du dee déglu wala du dee jël parce que soo xoolee sa bopp loo mer mermer dangaa dal am na yeneen fooy toll soo darul rek dinga nga gaañ di nga daal te soo dalee dangaa gaañu te soo gaañoo dafaa métti rawatina si askan bi mbokk muy askani Banjul du ma àndaane ci népotisme de muy Jalimaadi muy keneen laa ci emale moom Jalimaadi boobu noonu si groupe bi ñu ngi fa géjoon since 9 mai 2021 lañ fa géej mu ngi ni maako def nii ñu ñëwaat ba tey ci groupe bi maa ibi sax ma bindali pour alaat groupe bi pour wane ne programme bi mu ngi ñëw parce que bu ñu fàtte ne dama amoon dëj in between so mënuma woon a focus yu bari ci yooyu ku ci nekk rek sa boppa doy na la man maa binda lii ma fàttaliku eh, man suma boppa sax mere woon naa jalimaa di waaye duma ko fi wax su boobaa rek dina am leneen wala xëy na moom sax mën na ko gisee ne ndax loolu moo tax maay génn si di def nii déedéet every year su defee programme dama ko de analyse man li binda ma ne as we are about to enter the first page of a three hundred and sixty five years mooy si new year bi muy thirty first December new year's eve season greetings to all my fans ma jël nataali bi ma defar ko du jalimaadi bu ko share du jalimaadi bu ko acc wala du manager jalimaadi bu ko acc man ma jël share def ko si groupe bi hadijatu Kinte rek moko ko share woon uley sax share wu ko ñeneen itam share wuñ ko li yeb ñu ngi liggé apicos because man dama ne jalimaadi dafa wara am team yu bari yuy génn waru di génn ci mom ñu binda ñu wara binda ñu aat si groupe bi tam ñu ngi ci war a mun a aat yooyu bokkul ci topic bi just pour mu leer rek yëfi groupe la fog naa yéen a koo gis nii arama won leen ko netaali jalimaat yi baa ngeen ne si kaw waaw téléphone bi fu mu demati nii ragal de wala ne xaaral ñu ragal ñuy wax déedéet wax su jotee nañ ko wax rek te bañ cee ragal yéen a ngi gis road to 18 février jalimaat ya yéen a ngi gis netaali jalimaat bi ne le kayra bi moom lañ fa def manee jaam bi ibi ko ala boole ñu ci ñun ñëpp parce que nag ku nekk xam na ni ma xëree si jalimaadi ku nekk xam na ne jalimaadi suñ ko tuutilee man dan naka laa si dee meree di ci bérongu di ci xuloo di ci xeex keroog bu Wally Seck ñëwee Gambie ondi étin bokk naa ci ñi xee ba jalimaadi jëlaat ondi étinam waaye nag jalimaadi def na vidéo live di gërëm warul di gërëm parce que nit ñi dañoo gis seen boppa xam naa ñeena si mbokkaam yi wala ñeena ñu moo tey lañ bugg a xëcc moo tax muy oo seen tur waaye démb métti na kenn ñëwut fu kenn nekkutoon foo xamante ne su waxtu jotee pour ñu war koo mun a xeexal ci Facebook bi ñooñu kenn du leen gis du ma oo seen tur waaye xam nañ seen boppa ba pare moom Jalimaa di dafa mel ni ki léegi dafa gën a jox ñooñu boppa parce que xëj na ñooñu luñ koo defal la or whatever because tam géwél tamit eh, poosam la xam te ku ko filal poosam rek dina la bàyyi xel bu baax moom Jalimaa di ba tey suñ conversation si biir groupe bi ñu dugal flyer bi on the first buñ fàtte ne Youssou Ndour mu ngi doon play on the 7th of naa Then ñu binda ñu ngee ñëw di laajte di ñëw di laajte first flyer bi mu ngi nii classic gala xaaral ma wan leen date bi this was ma xool li wan date la nii sax this was foog naa on the on the first of January si lañ ko dugal pour wan nit ñi pour ñu prépare muy Kayra album bi classic gala bi on the first Yo, sa event bi war a mun a on the on the February 18 it was too late very late xam nga léegi-léeg nit ñi dañ dee wane Eva si groupe moo tax man duma dee bokk ak groupe da ngaa dégg ñu ne la dafa wala lu ko neex rek la dee wax déedéet parce que ñi dee nekk ci groupe comme ni ma war a rek si xarit yeeg yi dañ dee seetlu neex nit ki groupe soo fa nekkee amul kaddu génn fa groupe soo fa nekkee soo ragalee wax sa droit te bul xool ma samba ma demba génn ci ñu ngee dem di dem di waxtaan di programme naka lañ koo defee di dem ah, mu nga foog naa fii laa waxee xaaral ma ñëw ma seet fu ma waxee man maa ibbi wax bi sax waaw ma ne ko what what's going on ala ala mooy ma ne jaami is mid January regarding Jalima this event dégguñ dara mid January dégguñ dara si koo xam ne event am bi dafa war a ñëw te ndaanaan la mu war a ñëw dégguñ dara si Jalima di moom si boppam en tant que artiste bu mel They Jalimaadi de noise amut Ken xamul ne something is happening ñu ne woon Youssou Ndour bi la parce que nag Jalimaadi bi yoon dafa liggéey ak Khady Faye ñu dem ba man maa ngi man maa njëkk a lajte ñu ngay dem mu yes I know but soon inshallah you will know the time around we are doing the event with Absolute Entertainment mu this time around we are doing the event with Absolute Entertainment they they were engaged in some events because had if I in the one uh ah, key pokan bapare mu indi jali ki ñewon fa yusu ndur yo yeb dinañ ko dinañ ci ñew ci kanam we will soon kick off the radio and tv tour gambia and senegal inshallah man ma binati ala si group bi time is ticking the earlier the better am nga motam de wone gambia duñ de think ahead of time ñom dañ de fone dañ am time te fekk time out muna yes you are right soon everything Mune, yes, you are right. Soon you see everything up. Then conversation with them on, them on, then on. Betay man, My like kat bi de My like de. Betay maa ngi ah pop can you na mu dem pop can la exactly You know next flyer this is around date bi lay udde around 15th of January still mid January eh, then ñu ngee dem ma playal leen suma audio amul dara lu ma nuba waaw because of xam nga li tax sama binda lii dama koy play de parce que aw ma dara lu may nuba te waxtu dafa jot te Jalimadé dafa wax faa ñu toj kaase moo tax ma ne nit ki bala nga dee wax dangaa toog nga xoolal Jalimadé bokkut ci groupe bi ma ne jaam bi na fiit waroon na koo fiit audio yi ne moo binda bi soo bindee ñeneen ñi dañ dee feel otherwise moo tax ma bàyyi voice message parce que olof bi soo ko laakee dinañ xam da nga mer ndax meruloo parce que nag binda si mbooloo dafa métti te am naa si expérience bu yaatoo yaatu ñu déglu. waaw àddina comme li ma woon rek xaw ma ko but share nañ a podium to walk together fii bu mu ñëwee on London man ak Baye Babu waaw loolu la rek waaye li ma woon rek time is not on Jolly side this is Jolly here you know we are talking to this is a partnership deal if I am right well, by now, at least we should have something on the table. But as I said, let us work um, patiently. léegi tey pop can bi tey la the next come now go waxee jarina léegi come back, come to the dugal ci loo xam ne daf lay musiba waaw Jali also is not a small person in the Gambia noise nooy sam waroon naa génna Jali only have now exactly one month STC boppam on the fifth la There was some génna so nañ bàyyi loolu the earlier the better the more advertisement après di moo nit ñu gën ma dégg fanaa loolu suma voice la de mu ngi nii man fekk nag alaaji daf ñu bindoon mu ne nañ leen apply patient because Hadi mu ngi doon deal ak Youssou Ndour bi ak popcorn bi what does that has to do with Buhari Hadi Faye si boppam dafa leb Jalima di down te Jalima di waxu ko loolu mooy dëgg bi te mooy wax bi ñu dem man su ma jëmee boppa ba tey tayalu ma de ma def suma research dem Absolute Entertainment si seen page bi gisuma anything loo xam promotion la bu jógee ko si Saiteh regarding Jalimadi event am bi yes Youssou Ndour was on the seven su Youssou Ndour bi passé woon mu doon nañoo def advertisement Youssou Ndour dafa am audience boppam wala as soon as Youssou Ndour bi pare rek li Hadi Faye waroon nañu ko def mooy gene euh, bagage yi Jalimadi yi parce que partnership la gars yi di liggéey de because Jalimadi bi yoon dafa dem pour liggéey ak Absolute Entertainment te everything dafa waroon a jógee ko ci Absolute Entertainment companies yu Jalima di approach sax warut leen waroon a approach Hadi Faye moo leen waroon a approach parce que dafa dem pour liggéeyam moom Hadi Faye ñëwut approach Jalima di de moo dem approach Hadi Faye te foofu Jalima di def na fa a very big mistake Jalima di du cuune ci réew mi Jalima di du artiste buy yoot wala artiste buy ut pour taxaw dafa taxaw ba sampo yi previous event am yi passé yëpp moo ko doon defal boppam kenn gungewu ko ci xakka yi léegi ne danga dee bëgg a liggéey ak partnership deal ma fagoon naa ne Jalima di eewoo na ci partnership deal diggante ma Aida Bidiwel parce que nag léegi nekkaatuñ in good times li ma mooy bu ñu liggéeyee ba pare ku nekk nga dem sa separate ways léegi lekk na xaalis moo ko koos man suma bopp how close I am with Jali laaju ma ko because awma ci interest mu Bidiwel waaye nag di leen wax ne Aida Bidiwel keroog bu mu tegee Jalima di ñu def partnership sax lim liggéey Hadi Faye liggéeyut ko indiwuma jaxase de nan leer laa leen wax yeneen koo gis benn tey ala si boppam mu ne ñu apply patient dinaa leen indil date si yëpp muy manee jaam bi man ba tey may waxati ah. waaw alaaji comme li ma am na that first and then she has that you know. manee jaam lum ñu wax alaaji mu ne Hadi Faye musut a tega event mu fail waaye bii yoon si jalimaadi bi Hadi fay dafa fail ba béréngu alaaji loolu lam ñu wax suma message yi lay play play wu ma alaaji waxami de. nañ jël. Mm-hmm. am nga life is yàlla may na ko loolu it's not a chartered bank because pop can be done ticket dama doon moytu sax because whatsapp la audio yi muy génn di tasaare xadi fay jot suma audio foog ne dama ko añaane comme train boobu la gars yi gambien yëpp dee demee a ah, eva la daf la añaane peut-être yaa di indi Youssou xadi fay mënut indi Youssou Ndour gambien xanaa xamu leen Youssou kon non man gambien ni koo bu nekk ci très vrai c'est très très très très fort xadi fay dafa mën indi Youssou Ndour su nekkoon millionnaire Youssou Ndour kenn du ko indi ñu ne bala nga xam sa waay yekkal këram kenn du moom maa jigéen Ndour kooku maa dem këram xam lu mu doon xam mooy kan cam yéen da ngeen seen Youssou waaye xamu leen ne Youssou champion la moom Youssou Ndour moo mun a dem ay advertisement def yu nekka Youssou Ndour dafa professionnel du mun a ñëw réew yi jàmbur du am ni Gambia Youssou Ndour du Wally Seck duñ la jox yëpp nga jël yëpp de Youssou nduur du liggéeyewut noonu de kon yéen dese ngeen a xam Youssou wala yéen ko xamu leen ko Youssou Ndour eh, moy indi boppam Gambia waaye dafa ne damaa jaar nag ci doomi Gambien wane ne moo maa indi ci réew mi ma mun a am sax yoo xam ne daf maa gën a yomb wala su ma waroon a fay 100 du ma fay 100 ten lay fay dégg ngeen man ndax déggu leen ma waaye nag Gambia ñu bari luñ dee wax Hadi fay moo indi Youssou Ndour ah Youssou Ndour suñu watee fii dinaa ko ko laaj dinaa ko ko laaj de suñu tontoo nag ñu xam te Youssou tax mun naa defar wax ji ne Hadi moo ko fi dee indi. mun nako defar Hadi moko fi de indi kon nagn len problem problème bi Jalima di event bi was that it was because si dorin bi dafa fail communication fail yo timam am bi Jalima di defaru tim amu tim man ci suma bopa mako ne dafa wara def bi yon because last year bum paré rek man mako call ma waxa mom mané ko na def gala this year ko na def gala this year parce que romb na nag nit ñi di ñew podium am di di di chokop te Gambien ni dañ bëgg ég dañ bëgg gis leen ma dañ bëgg woné wu dina am time bo xamné dafa am script yépp ma wax ko ak jalimaar yi ko nam time bo xamné ne woyaan rek nga fa def ñu bëgg a nga woy leen ñooñu rek nga tiyé sen liste nga woy leen nga olen leen waxtu bobu dinañ wax présenté bi dina jog mu announce na li ak li rek la fekk tam ñi ñëw jënd ci ticket jox nga len sen gëda jox nga len sen aha jox nga sen waccu way nga balance di books parce que nit ñi mënuñoo ñew jënd sen ticket nga wone supérieur ci ñi nga xamné ne ñoo bugg a gambien sir borom lam yu di dañ bëgga battre ma wax ko lolu man ma tax jalimaa di iyeb yi man boka na mbok, ci ñi tax mu def gala mune nit ñi gëna nañ axakay nit ñi gëna nañ ci gudem bi man bu ma duggee ci hall bi The biggest gis nit ñi dama surprise parce que expect to woon turnout boobu noonu because there was nothing like advertisement Jali de da ngeen gis been video advertisement am da ngeen gis Hadi Faye li war si sunduur bi yëpp def na flyers we were on time ñoom Aba wàcce si nañ video yi yëpp lay play video yi yëpp lay play yëpp ngeen gis si Youssou Ndour bi Aba yim def yim don wone yëpp maa follow si TikTok ba si si snap ma screenshot yëpp dafa mel ni ki dama xamoon ne bés bi dina ñëw man damay screenshot rek toog abaa sax gis na ne maa ngi screenshot parce que Snap soo screenshotee daf la ko dee woon man ragaluma loolu noonu nga ne ma loo maa screenshotee conversation bi ñun am nañ ko ak manager bi moom mu ne ñu ñu xaar ñu xaar ñu xaar mujjee bi man ak ulay sax dañ gis suñ boppa mel ni jalimaar yi daf ñu xeet ñu ngee toog di xaar te ñun dañ koo dimbale jalimaar yi fayuñu mayuñu man suma ticket bi lu ma la wax ne suy benn hundred dollars sa hundred pounds sa jëlimaar yi def ko ci waaye doomi Gambien la muy comme ni ko wala mu ngee try mu ngee def war nañ koo support ma jël suma holiday yëpp aj ko pour guddi jalimaari bi waaye kenn du ayda bi di wel jox nañ nit ñi aha guddi boobu nekkuma ne dama leen a compare and contrast Hadi Faye li mu waroon a def 100 percent wax dëgg ne yàlla si ñu am xaw ma nag lan moo nekk seen deal man su ma jëmi boppa bàyyil naa Hadi Faye message te dinaa man du ma dee wa daf leer ndax di fay dégg ko ndax di fay déggul ko xaw ma waaye man suma ma jëmee boppam parce que jali ak manay jaambi alaaji leetuñ ñu firiwuñu te li ci bari si groupe bi lañ doon waxee man suma ma boppam ma kool xadi fay awma ko ma bàyyil xadi fay message ñu ne waxtu boobu xadi fay mu ngi woon Dakar sooy dem Dakar sax event mu nekk sa boppa bi nga leeta nit ñi wala nga firi ren press conference yang fi flyer yi ñu share ko waaye Gambien ñoo war di dem jali moo war bàyyi di def partnership ak nit ñi dafa romba loolu ST mu ngee demal boppam te jali ak ST seen line musique du benn ST ñi ko buga a bugg nañ ko ba pare eh, attaque ñi ko bugg a bugg nañ ko ba pare ñeneen ñi ñu ngeen a bugg nañ ba pare te jali maa di dafa dafa dafa liggéey nag dafa liggéey ba Exi fu mu egsi nii ñu dem rek ba tey 21st of January benn tey ñu ngi ci kawam ñu ngay xaar 21st of January si lañ am information bi sax ne si lañ because ñun ñoo doon pressure manager Jali Madi bi sax si la information bi about the tickets individual Eh, three thousand five tables is sixty five thousand dalasi forty five thousand thirty five thousand man ba tey wati man Eva mi de xam naa moo tax du may toog groupe bu bari ak maa gite ne nag ma ne ko lii dafa seer because man dama def suma research ma dem ma dugal ko nit ñi seen boppa ma ne na kool ñu ne ma ne lii dafa seer de ticket yi Jalimadeh te Jalimadeh sa nit la waxala Jalimadeh maa leen ne bii moom du ma si mën wax jël na décision am te di ticket sa already out nañ ko bàyyi. waaye dafa seer nga soo amee team dangaa toog nga waxtaan sa team bi waaye moom Jalima di si vidéo bi lu moo emphasize ne gan yi dañ dee jógee ci biti ñu ñëw ñun ñu fay three thousand five hundred ak ganami lañ ay décembre su fi oote three thousand five kenn du ko dem uyu yi ñaari nit rek ñoo ko fee oote ba pare tam dangaa def sa research very well mooy sa manager bi muy ala boobu noonu nga toog nga xool ban time la Wally Seck dee ñëw ci dëkk bi ak ñaata ñoo dee dem seetaani Wally Seck wax doo ko ragal boo ko war a ngay ooturi de waali bii yoon sax danga nga gis ne show sami am na bu échec semestre yi rek ñoo dee gën a dem waali parce que ñoom ñooy ñëw nama waali bu ko dem tegi waali yi waali wane seen dress wane seen sañse wane seen xeeti wiig seen xeeti baax baax ñu yóbbu nag xëj na seen nit ñi ñaari nit ñetti nit ñu fayal leen ñu dem wala mu jaral leen ñu dem gala mu jaral leen ñu dem dance semestre yi rek ñoo ko dee def muy décembre loolu yëpp da ngaa def research bi nga teg ko ci table bi waaye nga ne man doomi Gambien la damaa jóg ma forcer lii it's not gonna work Jalimadi nah nah. man better money man, ne manager bi ne this is expensive lu ma tontu mu ne ma ne waaye xam nga xaalis bi si réew mi la moo def ñu ngi koo fayal ñeneen ci the mindset of some of these Gambian people xalaat xoolal suñ mindset bi Jalimadi yes een man suma bopp xam ngeen ne na Jali Jalimadi five thousand a night Any na ko five thousand a night Why? I don't know du forcé Do ñëw rek nga ne bruh bu ko koo jox askan wi parce que ñu ngi koo fay si Wally Seck wala ñu ngi fay si Youssou it is not right Jali moo tax amul team Jali maa di this time team am bi did not communicate very well they did not do a communication job no ci waxuñ parce que bala ngeen a prize, price di teg ko ngeen waxtaan yéen neen nga ngeen vote ñan ñoo ne waaw ak ñan ñoo ne ne pour électeurs yi suñ be ba failure am ñi waxoon yees turit ñooñu la ñoo hold accountable ne leen ah yéen de ñii dañ ko woon noo ngeen ne yes kon nag next time lii ñun si boppam man naa uley we were walking blindly amuñu anything man dama dem ba benn bi dama mer ma génn bu ma eggee Gambia man dama eggee Gambia ma call Jalimaadi te last time li ma riir si Jalimaadi last time Jalimaadi was really exhausted dafa feebaroon sax parce que moom kenn moo doon dew te Gambia dañ soxor dangaa am event ñeneen nit ñi nga gën a jege sax ñoo dee bugg nga fail parce que dañoo bugg sa event bi échec nga fail. ñi la gëna a ak say mbokk yi ak sa dérété sax dañoo bëgg nga jali mari dafa daw bobu ba fébar dafa daw bobu ba fébar bobu tam ma def suma risaj dafa daw ba fébar bi yoon ma ne nga dangaa moytu daw bi motax ma téla dem gambie nak waaye nak dafa am rek fooy mun em mënuma forcer suma bopa di dawal jali ci luma bolé wut ñun keroog bu ñu dem ko ko usul ma ulay dafa def recording bi ulay daf mané dama ñibi mané ko do ñibi nañ xaar alaaje mu ne ma alaaji dafa yàgg torop ñun dañ toog they don't respect time alaaji si boppam dañ toog a toog a toog ba soona it was very late pour ngeen war a jóg waxtu boobu di dem si company si kenn du leen uyu ba pare sa manager bi dafa war am way of ni moo dressé su moo dem si dis companies jalimaari and then waru leen a jóg rek ngeen dem si company si there should be a professional way of dealing with them te jalimaari lii dama ko ko wax ma ibil an official email maa ko ko ibil jalimaari share wul ko Jalimari YouTube channel am bi sax buma ko ibil chiaw ko te Jalimadi dafa bari YouTube channel parce que si comment sami si vidéo bi dégg keneen ki neko ko you you can make it through YouTube fok mu close some of these channels pour YouTube sax mën ko jël serious ma gina ay ci Wally seka bu defee dara duma ko balal te duma ko may waye dafa professional motax mu raw artiste yu bari Jalimadi bu ne Eva moy ta show yam bi dem dina def lu mu mun pour Eva ek. dina def lu mu mun pour Eva pour nak jay you cannot compare yourself right now Jalimadi Youssou Ndour ak ki nga xamante ne wali Wally i am not that fans base Gambia ni more bias nañ loolu moom is true waaye yow tamit te li ma leen wax si groupe bi ma ne ko ticket yi dañ seer nañ ko wàññi woon waaye because of ñu ne Hadi Faye yóbbu na leen kooku Ouzone soo leen bàyyee suma interview bi ak Hadi Faye maa ngi ko naan Hadi yow suñu ne sañu laay rafet na sa nga yóbbu ñu kooku Ouzone xanaa danga fa am partnership deal Hadi wasn't very happy with that question moo laa wane Gambians dañ bëgg a nepotism torop why Lila la askan bi bugg a xam waaye Hadi all the time you get them cocoa. ko Ozone waaye Jalimadi did not do a paperwork. This gis nga Gambians Hadi is very intelligent paperwork work bi su ko génnee woon tey dañoo gis Jelly Jalimadi mooy nekk at fault te xamuñ Jalimadi si boppam daf ñu waxoon ne dañoo ñun dañoo link ak Hadi Faye mu wax a Hadi Faye ne ko dafa am team ndax Jalimadi def na loolu ak Hadi Faye non Hadi Faye xamul ñu xamul ne ñun ñu doon liggéey ak Jalimadi wala ñu dimbale and I think that is so unto Jelimari as a professional artist. As a professional artist. ñun ñu dimbale dimbale successful you did not pay us any dime we don't need any dime from you Mom Jelimari. dama ko anything that has to do with writing posting on Facebook avoid ko bulko def na la ko nit di defal tey so amee lu event oyal press conference bul dem ibi sa facebook live rek nga tok di wax one paag mi one paag mi sax nga xamantene ya ko daxa woy fouf pesa ngelaw di romba tay dafa ote press conference lan ata yow mënuloo def lolu mo nek de soru dul di jël di jël advice rek nga fail nit ñi dañ la bëgg torop gudi bobu la xamne Gambien ni bëgg nañ la man ulay ñun dañ am man bëgguma war dem parce que xamuñ dara si event bi te gis nga lu yalla dee def jalimaa di toog ci bitiki magam maa am luma magam di defaral mu am kuy xaar jalimaade xawma ma ndax na la ndax lan la nigerian la ndax lan la waaye jalimaade ñim soxla pour liggéeyee ñoo ñëw ñi xam ne ñii dinaa leen moom moo ñëw jël si kooku sax moom jalimaade moo tax yàlla dafa kéemaane maa ko fekka ni kooku ne ma jalimaade la moo xaar fekka man jalimaade rombante nañ sax waaye xam naa de moment jalimaade expected ma booy bu ma àndal moo ma ne sa nit ki mu ngi ni gis nga man ndeysaan dañ ma xam ba ñi ma jege ak jalimaade sax mu ne sa jalimaade mu ngi ma ko suñ jalimaade lusuma jalimaadi man kenan gambien jali mu jali ma sa masa jali si masa lagi sana jali maadi mu ngi dawal mutu bu mana nag ko macha li la ko ennee won mutu bi baax na jaar na yoon parce que lo liggéey nak te du feng ci yow te jali ndana la dafa sañse ma ko waaye mom because Jali wasn't expecting me there mu ma ah Jali maadi gisula pour ola ma ko nakala ma oye Jali maadi is not expecting me xamu ne man maa ka sa si kanami mutu bi because Jalimadeh xëy na from a far distance la maa xoolee su ma ko jege ñee la moo xam ne man la ba pare ne he is doing dealing with a lot Jalimadeh si déyam sax war a di ak yu bari daf ko war a bàyyee tiimam waru di deal ak yu bari parce que nag waru di daw yu bari waru di daw ba dok nit ñi ñoo ko ko war dawal moo tax mu am manager moo tax mu am team pour war faa nekk pour ñu defal ko liggéey bi waali du daw if you want to compare yourself with Wali, the man after loolu Wali show bi dama screenshot you bury my one coco, mom jelly madi. Then go prepare ahead of time Why moom More gonna see that preparation she he was really upset obsessed with Hadi Mudem mu Hadify, si Hadi mu fail dafa fail Hadify Faye waxu te su waxee dina leer nañ le Hadi Faye mun na man buma duga dugga see si biir hall bi sax surprise parce que ñun garden like different advertisement bi mën a uley we are lost ñun we were lost because one minute dañ leen won ne fii lañ ko defee Coco Ozoum si garden bi next minute ñu ñëw gis ko si hall I was so shocked lan moo tax ñu move ko loolu ngeen communicate ak nit ñi moo laa wone communication is a big barrier in the Gambia and that can lead to a failure te moo leen dal bi yoon Jalimadeh gis nga dara So, si juumee jóga rek nga ne maa ngay jégalu dinañ ci gën a liggéey next time eh, fu you, tarxiisoon bu beneen yoonatee su ñoo tarxiis du métti nga wax ko mu gàtta simple nga dem move on Why don't try to gain nga ne da nga try to to to shift the blame onto some other peoples I know ne Gambian company duñ dee duñ support waye nak amna noy di la ñom dinañ support parce que soo leen an official letter won len an official email man suma boppa barki dem rek la def gala bima umi ne ma kii dafa sponsor dama ko neko duma dem tok office am ñuma heb di may yab parce que neexuma deret ban kuma heb rek la bañ akuma yap ma email address am yu jox ma ma email ko foofu laa ema moom follow up ma ko topp ma ko dara fekk man suma pare ci dimbale muy ma dem ci dimbale suma budget bi because dama work according to the budget dama am budget bi bala ma doon génnee date te mari di mo gina tax ñun suñ gala bobu nangu ñoo jaay ticket lay wax na be yuuxu ma ko duma jaay ticket teewul ma ko xalaatuma mu ne ma Eva ma ngi doga gis gala bu mel nii ko strictly te bu mu doon advertisement bi sax ma ne ko danga strictly bi nañ ko répétaat strictly by invitation strictly by invitation jalimaa di ticket bi man suma xalé keri sa dama leen ne ñu ne ma meer su fekke ne dag ñoo fay yóbbu jalimaa di jox ma xaalis bi mal leen yena bon waye imagine nga ñoo holiday nga wara a five people si 3005 loolu ñaata la ñooñu ne ma su fekkee ne dag ñoo yóbbu Jalimaadi jox ñu xaalis bi ma ne ko déedéet Jalimaadi laa leen a yóbbul ma fayal leen ñu ne ma déedéet fekk attaque ta mu ngi doon play ba pare ST mu ngi doon play gis nga dañ war di def research parce que ah, ST mënut a play on the 5th attaque play on the 29th of January ST play on the 5th ñoom ñëpp ci nekk seen ticket yi ko 300 500 yow Jalimaadi nga ñëw dem ST wala ñu am ci attaque. wax na lu am solo nag moom Jalimaadi mu ne soo bëggee gis président bi daf dee métti foog naa ne loolu ñi ci kaw la te ñooñu dañ wàcc seen ànda parce que tey yow Jalimaadi soo demoon Sénégal doo gis Macky Sall amul fooy dugg ba jaar ñu ngi ni si ñu dee wax ne Eva dafa résiste fu mu nekk nii dañ ayee télé eh, eh, fii mii indi yani ñu faa daw moo tax série yi bari ne ku ne ku jóg def série xanaa man sa tey moo fa nekkoon bokk si théâtre série yi parce que nag am naa talent bi ñu ne théâtre indo du fa dawaat indo mooy indi yan film yi du fa dawati ñu xeex ko te yow Jalimaa di nga ne gars yi ibi nañ seen stadium bi dëgg bu wér nga fa wax invite uñ kenn ci biti seen doomi réew lañ invite waaye nag sa doomi réew soo xamee ne ñoom dañ dee jéggaane ci biti lu bari bu leen ros 3005 bi di nga ci doon eggi ba si 5000 waaye bi yoon da nga ros torop duwut ne koko Ozone rek mooy place boo ko mun a defee de Gambie place yoo ko mun a defee ak a ñoo bari ci njëgam ak price am am na ku si sa vidéo bi mu ne la ne nit ñaa ngee xelaat lu ñoo lekk saaku maalo ak li moo may la wali seka te wax naa ko si groupe bi ma wax ko ala ma ne ko wali seka ñu ko dee gën a dem mooy semestre yi ñoom ñoo na ma wali seka ñi nekk Banjul ñi ci bari demuñu wali Seck ma playal leen video wali Seck boobu audio boobu ñooñu waxoon e, kero bi nga xamante ne wali yi Wally ay seer dañ te wali sax eega na moom si bopa mu ne ticket yi dañ seer te bii yoon du ko nangu te yëpp dama ko indi ma def ko si groupe bi nañ leen dema playal leen Gambien si dinaa am na fu ma skip tuuti Euh, parce que bugguma dafa ooturi nit te bugguma turam mu génna bu ma fi paree li may si ay wax ay calls rek doy na ma bugguma keneen tam di ma attaque naan ma ne Eva dama dégg sa tur si si si si dama dégg suma tur si si benn audio audio bi sax yal naa ko gisati man cey audio yu bari may leen ma rek Gambien yi ñu si fan naa mu ngi nii. loolu laa audio baa man leen di na ngeen fayda de non man bàyyi nga dara xam nga ne yaay jaame bu mu génne ba léegi yaay Gambie na ngeen fayda ñaaka fayda Gambie ni yëpp tamit yaay jaame wala bu yaay jaame de ba léegi fayda bi dafa law biir Gambie bala jo nañ waxante dëgg Mohamed Touré mooy kat mi war a def dans thousand five loo xam ne like fu mel ni excuse city doo ko def ñëpp afu ñu amu kenn ñu duga waaye Gambie bu fi nga xam ne am am season la nga war a mhm. jël loo am ñu def ko si benn waali toog waali su paree ñëw ñaari track wala ñetti track su paree wàcce y' a passé yooyu noonu ko dégg ci waali bi sax Gambien yaa ngi doon kaas semestre yi ñoo de mu ne season la te mooy dëgg moo laa wone defu leen seen research te yow Jalima di wax nga lu am solo sa vidéo nga ne sa fan si seen doole amul kon nga waroon a delloo buum sa booy booy ba si sa fan nga waroon a def thousand dollars si at bi sax nga seetoon naa du ñun romb nañ si club bi dafa fees. ulay mu ne ma ne si fekku toor ne ticket seeruñ mu ne ma jalimaar bi tey na fees ba nit ñi duñ am fuñ taxaw advertisement bi amut amuloo benn video advertisement ko defal ana Hadi Faye pour ngeen a def video advertisement bi dinaa leen woon Youssou Ndour bi préparation yu si Hadi Faye def moom ak team bi wala yu si Youssou Ndour def yéen Gambien ni pour lan doo dee def advertisement ahead of time Youssou Ndour dafaa def advertisement ay two months théâtre lu nekk mu def ko waaye yéen ngeen a doo leen dee pare pour def loolu noonu pour lan nga war a jël ne Eva pour mu defal la advertisement bi nga ne non Eva duma ko ci boole sa yëf du dem nga wala boole keneen ku mun a wax nga ne ko déedéet yëg sa boppa téye ko sa event du dem Gambia duñ génn parce que di moo ñu ngi consume di message or di information mu ngi duga si la ñoo gën a willing to come Gambia ñoo mel noonu lu ñoo dégg bor bu sedd dinañ bugg a ñëw Gambia ni sax ne waali bi dafa seeroon te waali si boppam eeg na mu ne lu tax ni ñi ñëwuñ bu baax mooy ticket bu seer sakatuma laa nag yow jalimaat te gis nga ne waali dance bi sa feesu toon dafa gaabe Youssou duur tam dance bi dafa gàdde a ah, fu yooyu yëpp bi yoon Wally ak Youssou Ndour sax ñu ngi xoolaat seen toogaay su ñëwee biir Gambia yow Jalima di nga nekk doomi réew mi nga war a gën wàccee sa ticket ngeen ñëw jël ko nag égal ko because of Koko Ozone la lan moo nekk Koko Ozone man dem naa Koko Ozone seen grâce sax roose wuñ ko mm, dem naa siiviw maa ngi toog maa ngi observe yëpp ñu sax di amount liggéey bi ma gis siiviw sax gisuma ko eh, Koko Ozone waaye Gambien ñoo bugg a tur lan moo nekk because Youssou Ndour tega na Coco Ozone yow da nga war a tega Coco Ozone yow yaa Youssou Ndour benn grade ngeen nekk Youssou Ndour mun a jënda Coco Ozone Youssou Ndour mun a jënda Coco Ozone ba pare alaaji bu mu ñëwee sax ni mu yàggee Coco Ozone ma ne ulay ne ko this is not going right parce que sore ñun bu ñëwee sécurité bi lim ñu laaj ulay mu ne ma Eva yow da nga dee natta de sécurité bi lim ñu laaj biñ ko njëkkee wax because man dama dee dem ak professionnalisme dañ dem ñu dugga ñu nekko nekko ne ko ñëw fii pour meet up Jalimaadi event tamit ñu sax xamuñ ne Jalimaadi mu ngi am event foofu noonu sécurité bi xamu ko sax mu ne ah kañ la di patati ma ne ko ulee yaa ngi ñun si bés bi sax amuñ ticket pour war a dem si Jalimaadi bi xamuñ ba pare ba tey si group bi ñu ngi laa wane di presenter will bi known on the day so sax dama leen ko fàttee wax xaaral ma indi ko ak ticket yi Jalimaadi yi kañ la génna This was on the 13th of February, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Message be seal again. Mune, presenter, men, presenter mentioned during the event. Pre presenter will be mentioned during the event. How unprofessionalism this is. How unprofessional this is. Jalimadi. How unprofessional. presenter will be named on the day why lu tax ngeen allow ko dafa melni yo ya yaa Hadi sax amu contract wala ridante wulen contract ba ngeen understandante Hadi fay du def li ak Youssou Ndour du ko def ak keneen sax popkan bi gis nañ ko Hadi fay dafa jël moto mu dem jëli popkan ci airport bi mu indi ko Diko escort Mako setan ni bobu tam dara mako screen record ama ah, sen seeda record nako. ko man yeb la record ama ah, sen seeda record na bobu non ma playel len ko man ñewuma fi pour wax luma ma de wala pour indi ni down de luma gis luma suma bot may lool la leena wax de mu neex leen nag jël leen mu naari leen block leen ma wala ngeen delete ma si seen groupe yi parce que rek la yàlla de ana ma xool pokkan bi sax ban la dubi ay waay ana pokkan bi dañ bari wii la video ba ana video ba Hadi Faye dafa escort Popkan ak jëli ko airport ba Popkan si hôtel lam ñu ko filmé di ko wone lana tax mënutoon na xapoon si Jalimaadi bi loolu question bu ma leen a laaj la ak Hadi Faye tam mu reesal ñu si ansa su fekkee mun naa nekkat naa leen won yu su duubi préparation yi nga xam ne Aba def na ko ma seet boobu man koo seet ne lii dañ ko may Aba Mbase ñu moo laa woon Gambia suñu al toppe bi du jeex. a ah! point zero ah, ñu may tere commencé ay Gambie ñoo bëgg teranga de ba pare Gambie dañu apprécié ki kii dina la man damay suivre sa programme kii na man dama la like kii na aba ay ah, Gambie neex na demaa toog ah man toog ni demaa toog kii def ma nopp yow ne mais man nopp ma magam la xoolal rek complexe bu Gambie ni am sax si sénégalais si Aba yéen a ngi gis li yëpp Aba mu ko doon wone si Youssou Ndour bi before lii lañ ene woon Jalima bi préparation bi mu yëg ko nit ñi gis ko ñi snap ko ñu wone ko waaye amut yes the media houses were there the media houses were there mënuma laa wax bii la mënuma laa bële Kër Fatou gis naa leen ñu ngi demoon waaye si seen vesti kenn rek laa gis mu sol Kër Fatou t-shirt am ñeneen midia house mënuma laa wax ban ban ban ban ban ban ban media outlet la gaay bokka jëlimaa di lii la soxla si event bi li ñëw dañoo dem ñu wone ko uyu leen Hadi fay she was so busy gis ngeen ko ak bugam bi di dem up and down parce que su ko deful Youssou du ko fi bindal cagam bi lan mun na defal Youssou Ndour lan la tax mënu koo def ci bu jëlimaa di bi préparation bi yëpp ñëw ñu ci war a liggéey yëpp liggéey ko man loolu laay laajte salaamaaleykum <laughs> Ki mo décoration la. kii bi you know so nañ leen bàyyi loolu xel waaye nag Jalimadin laay xool moom laay gën a bileem ci lii. why do you want to go in partnership with Absolute Entertainment because Youssou Ndour daf ko dee indi that that complex needs to get out of you Jali now why bul dama ak kenn you can do it on your own amal sa team ngeen toog ngeen waxtaan Jalimadin da nga war di léegi nga war pare Ote toog meeting plan lay def. 2023 February léegi la war door tooga bi léegi la war a door binday office la door follow up bi di dem follow up bi ko Gambia loolu lañ bugga dafa nga njataleen toppaleen comme li nga wala buñ ñëwee doo di binda ba tey suñ la uyusee baax na suñ la uyusewu di nga dem nit ku gëm boppam tam noonu la moo def waaye nag bi yoon fol bi si yow ak sa team bi la especially alaji. parce que alaaji mu ne all what they had in mind or have in mind was that Hadi Faye du dee def benn event bu successful this was even successful Why? waroon na moo gën a successful jali parce que nag xam naa ne ticket yi jar ci bunta bi bari wuñ man suma boppa dama ne uley duma dem uley yaayam moo ko ne déedéet foog ngeen dem te nag ñemeñu ma sax uley yaayam mu wax ma teg ci baat ñemeñu ma ko sax ñun ñun dañu ñun dañ amoon dañ ma jàppoon Denton Bridge because dama dem meko bu Banjul foog naa vidéo naa suma doomi mag bi laa jox moto bi man maa ngi amee high heel suma solee high heel duma dee drive loolu bàyyi naa ko yëpp duma dee drive ma ne suma doomi mag bi yow mun nga moto tiyel moto bi man ma nekk si gannaaw ak uley sax because bugguma sax duma dee bugg a feel that superior war a toog si kanam bàyyi uley si gannaaw moomu drive ñu dem ba Denton Bridge xam naa mu gis ko parce que suma famille dañ look young booy bi tam la waaye dafa look young xam naa mu foog ko xale wala ko amut licence because police bi bu mu ñu stopé lim ñu wax mooy kii am naa licence maa moo amut licence ma ne ko am na foofu taxaw nañ fa lu yàgga brodo moo ñu génnee foofu parce que man na police bi because the police was right man suma driving license bi maa ko amee waaye nekkuma woon di drive parce que nu kon police bi du weesu suñ time waaye nag léegi-léeg seen event yi itam su paree yéen Gambien artistes yi ñi ngeen seexul liggéey bi ñu ci bari dooleen leen dee fay mocaat sax dooleen leen ko may ñi amee woon seen kaddu wax bi dooleen leen mooy mocaat ñi leen defal advertisement bi dooleen leen gëstu tooyal seen i pour lan te yéen ngeen a rek di te jalimaa di sax waxtu dafa jot pour nga gën a yokka soo amee rek nga dugal ko ci instrument ke bu ma ñëwee tega bi ni ma ko déggee ci live bi wasn't very great soo buggee nag ñeneen ñi ci biti gën laa jox cër dangaa invest into instrument ba pare nag sa guddi gi danga koo pareel ñi laa tegal yëpp dañ war a am uniforme boo xam ne dafa am maaj professionnalisme fa ngeen boole ko ci seeni yëf pour ñu gën koo ñu ñu gën na mun a jël sérieux sakatuma laa nag ñeena ci international artist yu nekk ci biti mun ngaa demal sa boppa bu la a Bidiwel boo bokkoon ak Aida Bidiwel moo daaxa bii junne yoon parce que Aida jox na nit ñi ñu lekk ba naan jox na nit ñi ñu ñu ñu naan ba mandi fruits yang fa woon everything boobu tam kenn waxuma ko suma boot moo ma ko may everything was intact te yow ni nit ñi dañ la bugg a ba pare di like of Mode Sow kooku dafa bugg a Jalimaari si xolam bi kooku noonu fu Jalimaari tëgga dina ñëw moo jabarami mu ñëw mu toog mu jën mu support mu jënd ticket keneen tam noonu keneen tam noonu keneen noonu te nag ñu nekk bu nga doon def live ñu doon wax wax bari yooyu ñaata nit ñoo ñoo jënd ticket pour support la ñaata nit ñoo jënd ticket yow Jalimaani pour support la Gambia wax rek la ñuy def wax rek la def semestre yi ñu ngi woon foofu ñaata nit ñoo ñëw si sa event bi si semestre yi waaye bu doon waale la ak Youssou Ndour ñu dem loolu moom ànd naa ci yow 100 percent waaye nag doo ko forcé lu nekk ndànk ndànk la parce que Gambien yi yeneen saa soo leen forcé ko def te man suma boppa dama si dee xuloo nga dégg ñu ne Jalima di Afrique Manding la moo woy maa leen it doesn't matter li na di ko mun a consume parce que man yooyu duma ko jël wax na nag musique bi tribalisme mu ngi see dugg si akay ah loolu gis ko si diggante concert yi ST bi ak bu jisu ak bu kii bi astafulaay attaque bi parce que nag ñeneen ñi nga xamante ne ne ñoo ST ñoo bokk laaka xëy na mbiri rési mbiri soose ñoom ñëpp si ST lañ dem olof yi tamit ñu ne dañoo dem support attaque parce que dañ gis ne ñu ci bari duñ dee jóg soosey pour dem support ñi nga xamante ne mooy attaque and I think this is not right ba pare yu jëlimaa di bala ngaa where is the music union soo amee lu la naxari xanaa bokkaloo si union bi nga dem nga tegal leen ko ñoom xëy na investigate wala ñu def suñ génnul nga doog a press conference you have to be organized everything has to be paper and a pen wax naa la sa wax dafa war a minimal ci air bi pour nit ñi jox la sa cër jox la sa as from now tey la liggéey bi war a mun a door ak sa team bi sa YouTube tañale wax naa la ko may la dafa bari close leen boo nekkoon jolof at am nga ak ñoom ibil nañ la boo nekkaatut close leen boo bugga mu dem mu dem waaye nag am na si ñuy gis sa boppa si si ñi laa support de parce que nag gërmande yi sa boppa nga war a bàyyi man last year dama jënda ticket ma yónnee ko sa manager bi te yow yéguloo xamuloo ma jëndat VIP ticket ma may ko suñ xale kër yëpp ma fayal leen ñu dem loolu xanaa support romb ko kon nak ñu tej ko fi waye mu gëna a defaraat toogaayam rek te moytu wax ji eh, ñom arama borom mom xam nga nit bo xamul du bari rek lolu ngay def ba pare ministre bu amé adabi ak couture bi tam mo leen gëna wara war jox budget sax ak xaalis pour ngeen di mëna def ni rawatina sax yow Jalimaadi parce que nak comme lima wax la rek tay suñu amé gan afta ku ya, te yow rek ya mëna woy luy dugg ci nopi nit ñi. parce que attaque ni mo manière man duma dem di attaque esti ni mo behavior on stage duma dem parce que man fa xéti tay boko torop duma fa den tok mënuma faa toog dafay fàttali suma dina bi yow rek laay ñëw sa event du ma fa gis ñu yuutal ba birangu du ma fa gis ñu naan sàngara ba ba ñu leen a téye du ma fa gis ñu tuxtaay ba ñu leen a ne xicca naan leen toog leen te nag soo nekkee mag dangaa dem si event mag waaye nag ticket si next year soo ko defee loolu doo gisati kenn wala sa njege ñaale yi rek ñooy ñëw ñun guddi boobu noonu buñ ñëwee woon sax xamu which was nice xamu woon sax ne Jalimadé dafa woy ba ba ak ñu ci ñu jóg ma ne ulay jógal mu jóg ñu taxaw mayele la bem neex suñ doomi réew nga su ma amoon seventy thousand sax dama ko def sa guddi bi parce que doomi gambien nga ci réew mi foofu la moo des waaye booy gërëm tam waxal ne yaa ngi gërëm ñu boo dooree du all tour rek ñeneen ne dañ see gis seen bopp parce que nag ñi la support bu dara du dara tey ñiy raasaatu bari nañ te démba fu dara nekkul gisuloo leen ñu doon say mbokkaak say jege ñaaleeg yëpp laa ci emale parce que nag ku tekki lu sotti am borom lu sotti rek am borom jamono ji jalima di sotti na bëgg nañoo am borom ne man maay cousinam man maay patatiyam man maay patatayam waaye démba xëy na fogoon nga leen sax u la parce que amuñu woon ci yow yaakaar waaye soo bëggee seppi di gërëm rek dangaa make erreur parce que am na ñu bari booy boobu bind na ko si commentam bi mu ne moom jënd na ñaari ticket VIP ticket. xanaa ñooñu ñëpp nga war a wax thank you thank you rek doy na moo tax soo amutee staff rek soo moytu di nga fail te bu la gàmbee ne jéppee dina métti de kon day wañi sa wax si internet bi lu baree bare dem na ba walaal ne xëj na political party buñ foog ne moom la bok ak lii that wasn't really necessary UDP suñ amee seen bés bu nga tégal len doomi Gambien len tégal len Adama baro su sigisé bopam ak ay nitam wala Gambien ne fiit ko ne ko jalimaadi UDP la loolu problème yi Adama baro la wul sa añ wul sa reer li ma wax rek suñ ministre yi ñoo ñorot ñi ci bari parce que té yow di doo dem Sénégal ba gis ministre wala nga gis makassala waye waaye nag Wally bu mu ñëwee ci gambien ministre yi ak ñiy toppa ci gannaaw kabudu yi sax ñoom ñoo xejal waali ba mu dugg suñu state house bi te loolu ñu ngi koy xeexte dina deñ parce que nag sénégalais bi su ñëwee biir Gambia right buñ ñu mee ñun Gambien ne suñ fa demee ne ñu jox right boobu noonu waaye ñoom yabuñ seen seeni palais de te ñoom seen président dafa am degree ñun nag suñ président eh, security certificate la am moo tax yu bari daf ñu dee dal parce que nag sa jànga su soriwul rek di nga def mistake yu bari kon nag fii lañ leen a tàggoo bala ñu cee dugal leneen lu ci bokkul wala mu nuru leneen eh, nag ñu ngay jéggalu xew-xewi jamono la nii la de mun a mel faaw mu hit two hours waaye tey duma ko nangu may jéggaluwaat beneen yoon ñëwee naa xool nag ci jalimaat yi parce que dama mer waaye sama nit la tam man rek maa ko mun a wax dëgg ci pencami bu ko neexee ñu àndaat bu ko neexee ñu tàggaloo rek pare naa ko waaye xam naa ne tàggaloo du am parce que nag nit la te niti na te yar nañ ko eh, di jégaluwaat bu baax a bu fekkee am ne benn kàddu bu ñagas bu ñu ko ekkati bu tiñ ko tegut ci yoon ci teggin ak ci discipline dinañ defaraat suñu bopp defaraat suñu toogaay parce que yar ak teggin ak moom la ñuy jàngale moo xam man mi toog di wax aw ma droit pour war a jël yeneen di leen ko xarab ci lu nekkul ci yar teggin ak discipline naka noonu yéen ñi nga xamante ne tam yéen ñuy seetaan xew-xewi jamono tàggu na leen ba beneen nu end of month incha allahu rabbi ñuy waaj tak du dugg ci weeru koor bi dinañ ñëw xëj na ñu ne weer koor bi first of april la xëj na on the 27 wala on the 28 dinañ ñëw def suñ célébrité yi bu leen yemee ñu pressure rek bu leen wane seen yëf ku ñu jot sa yëf jot sa bagage dinañu ko wane jëlee leen ko añaan wala lu mu ci doon rek pare nañ pour jël ko Eva takku na ba dëgër sangu na naan na pare na di leen xaar loo leen ma indil rek ma jël tenteng rumu rëy rëy tenteng dëppa ko waaye nag li ma wala ñu sant yàlla bu baax buñ bokkut si Sénégal parce que nag su la média yi jëloon yow Jalima di dootoo ko doole de di nga waaj bu baax bala ngaa génn di def live vidéo yi boo ko wéedee laaj ko Mbacco Jaay kon ñu fanaan jàmm ba beneen yoon ci seeni eti xew-xewi jamono Voice Out Digital ak Eva Sarr